barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi xalifatul am li tariqa tijaniya muy cheikh sayid aboubacar si ibni cheikh alhaaj mohamadul mansour ibni cheikh sayid alhaaj mar radiallahu anhuma ñu nuyu ko ziyaar ko ziyaar istimdaad ci ajuma ji fa tabarakallahu ñaanal ko yàlla tey sàkku ci moom ñaan suñu nuyoo ci moom nag mooy suñu nuyoo ci mboolem njabootu maam Cheikh Alhaaj Malick yëpp radiyallahu taala anhu waaye nuyu tamit personnel bi nga xam ne ñoom lañ nekkandool fii ci asfay di ci jiital suñu sëriñ sëriñ maam Omar Ndiaye suñu président directeur général di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal sutura defal ko ndam ci liggéey bi di nuyu mboolem auditeur ak auditrice rawatina les dal de as yi fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di uh, nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaye tabaarakallahu di jiital uh, ci nuyoo bi ki nga xam ne moom mooy Euh, maanaam di ñëw ak ci seen émission muy Maïdatul Quran Maïdatul Quran ñu ànd ci ak ki nga xam ne mooy Serigne Mame Ousmane Ndiaye fa tabarakallahu euh, muy euh, émission boo xam ne bés bu nekk ñu jàngat ci benn saar wala. benn aaya alquran boo xam ne dafay méngoo ak jamono ndax alquran toujours mi ngi wax ak ñooñ tey yaakaar naa sëriñ Ousmane fa tabarakallahu kon incha allahu taala ñu fas ci yéen ñu fas ci yéen a ñëw ak yéen kon professeur gannaaw bañ la waxee asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak du ñu seetaan ci asfiya yi aoudu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la nuyu si àjjuma ji di jël suñu nuyoo di ko sof ci sa nuyoo ni nga ko nuyoo ci kilifa diine yëpp ak kilifa aada yëpp di si jiital suñu xalifa Seyd Aboubacar Sy Mansour yàlla gën a guddal fanam gën a yokk wéram ak mboolem ñu bokkal kër Seydi Hadji Malick yëpp ak ñu bokkal réew mi ñëpp di ziar waa kër gi yëpp macha allah di ziar suñu DG Hadji Ma Omar ak euh, sëriñ Alxaaji Moussa. Mm. ñu caméraman bi. président célibataire yi. suñu <laughs> suñu suñu kii technicien bi. Mouhamadou Ndoye. waaw ah, Cheikh Mouhamed Ndoye. bëgg ceeb. Ah. <laughs> fa tabaarakallah euh, ñu nuyu leen ñoom ñëpp ziyaara leen macha allah di euh, rafetlu seen taxawaay ci seen liggéey ak seen xarañte macha allah allahuma laa aduru yàlla na yàlla yokk seen xam-xam ci technicien boobu tabaarakallah sëriñ Ousmane émission Maidatul Quran niñ ko baaxoo bala ñu koy def ñu ubbee ko ak actualité waaye bala ñu ñëw ci thème actualité bi ñu rendre hommage ki nga xam ne mooy euh, Serigne Cheikh euh, Thierno Samba Diallo tabaarkallaa nekkoon fële ca Sagne rek ca wetu Kaolack nekkoon koo xam ne ku doon jëriñ jëriñ réewam la ndax koo xam ne mi ngi doon investir alalam. Euh, pour réew mi jëriñu ci tabax ci tabax hôpital tabaxal tabax ay jàkkaaki juma waaye tamit defar daara joo xam ne la fa nekkoon ci ay xale ëpp na ñetti téeméeri xale yoo xam ne kenn du fay lépp moom moo moo daan moo daan ci moo ci daan def ñaqam tabaarakallaahu ngir lan ngir ñu xam diina yàlla ji waaye nekkoon koo xam ne tamit tabaarakallaahu ci ay parolam ci ay waxtaanam ku ci daan jubbanti doomu aadama yi la mais ku ci daan indi solution fu lu lu mën a xew ci àdduna rawatina ci suñu réew kooku macha allah génn àdduna barki démb ñu koy rendre hommage. waaw fa tabarak xaj Babacar kooku perte bu rëy la ci umma islaam bi mhm. perte bu rëy la ci xam-xam mhm. vide la itamit ci Sénégal mhm. ndax ku mel noonu buñ ko ñàkkee ñàkk nañ ku rëy rëy Cheikh Mouhyiddine Alpha Samba Diallo euh, lu mat lu matul semaine ci ginnaaw maa ngi doon waxtaan ak ku ñuy wax docteur Seck pharmacien la mi ngi nekk foofu Kaolack sët la ci man xaritam la ma ne ko man de bu affaire yi génnee nii bu ñu génnee ci confinement bi nii dinaa ñëw seet si ko ndax dama ko yàgg mbébét pour dem seeti ko maa ngi ko xamee ci suñu benn mbokk bu ñu doon jàngandoon Égypte mhm. alxaaji Malick Mbay mhm. sët la sax ci man mhm. euh, ci moom laa ko xamee moom daan yónnee ay waxtaanam di ma wax ay affaire am euh, man man benn bis sax maa ngi wax naan ah Cheikh Mouhidine dafi nga xam ne ponkal la maanaam ku jógee keer ñëw gëm nit daje nga dajale nga dajale nga ñaar xam-xam ak baatin. wallaahi wallaahi mais géej la woon. Mm-hmm. géej la woon ci xam-xamu sharia. Mm-hmm. géej la woon ci xam-xamu baatin. Mm-hmm. waaye géej la woon ci xam-xamu àdduna. am na conférence bu mu daan def fii université. man dama ko daan faral di seetaan lu bëree bëree bëri. mu nekkoon nit ku yàlla moyaan lool lool lool lool. mu maîtriser bu baax a baax a baax a baax mais nag ñun Sénégal malheureusement. ñun soxlawuñ boroom xam-xam. bëgguñu borom xam-xam promotion wuñ borom xam-xam dañ koy yor rek ba mu génn àdduna ñuy doo ko wax. waaw genre Mouhidine comme genre Cheikh Anta Diop gi la. Mhm. xamuñu seen valeur. Mhm, dëgg la waaw duñ leen valoriser duñ leen déglu dañ leen di bàyyi. Mhm. ba ñu génn àdduna ñuy doog a xam. mooy genre Serigne Cheikh gi. dañuy daal bàyyi na ñu jël ay waxam naan waxoon na ko de hmm. te ba mu koy wax yaa ngi toogoon toppoo ko mu génn àdduna nga bëgg koo topp mënul ne waaw kon daal kon daal am na ay ngànk yoo xamante ni ci réew mi hmm. vraiment ku leen ñàkk ñàkk nga lu rëy rëy rëy yal hmm. yàlla yërëm ko amiin yaa rabbal aalamiin yal na yàlla yërëm ko te nañ ci parce que nitu yàlla pire la woon nitu yàlla pire la macha allah yal na ko yàlla yërëm yégal ko ci aljanna yi gën a kawe bi jaanabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu actualité professeur euh, ñi ngi toll ci jamono toujours rek feebaru mbas bi ba looloo waraloon euh, président de la république euh, Macky Sall euh, waxoon ne dana am dimbal moo xam moo xam ne dana jóge ci gouvernement bi jëm ci askan wi loolu nag mu mel ni commencé na ko muy dund goo xam ne jënd na ko la ci gën a siiw nag di ceeb xam naa ci comme sénégalais dañoo bëgg ceeb moo tax coowal ceeb waaye boo mën naa wax ay ak dund goo xam ne ñu ngi koy séddale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy population ñu seetlu ci biñ ne ceeb bi ñëw na ñu ngi koy séddale ba léegi euh, dafa mel ni dafa indaale coow euh, te euh, Sénégal nag moom mu nekk loo xam ne néew na lu fi luñ fiy taxawal te amul coow loolu ci réew mi moo ko baaxoo ñu bëri nag yaakaaroon ne est que coow li jaroon na ko ndax li amoon importance mooy na dund gi ñëw ñu jox ko nit ñi ñu jëriñoo ko ban jàngat nga ciy def yow. waaw jàngat bi ma si def mooy ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla na yàlla jeexal li amiin parce que dund bii du dund. Mm-hmm. da yorul kenn. maa ngi dëgg de. ndax euh, benn kër nga dugal fa saako ceeb. Mm-hmm. benn butéelu diwlin. Mm-hmm. benn kilo suukar. léegi saako ceeb ak diwlin kilo suukar mais après léegi nag dañuy ubbi robinet xooj xooj ceeb ji sotti si diw gi daal di lekk. ah doy waar ah, soble bi. <laughs> ana ana ndugg mi ana nangam ak nangam. bi si des it mais kenn mënut a dëkk si ceeb est ce que ceeb bu ñu xëyee moom la ndékkee. mu ñu ko ndékkee añee ko reere ko. Mhm. kon genre sàmbalan la rek. Mhm. waaw. ah pourtant professeur gars yi nañ am na solo de ne ndax ndax ñu jot ci loolu moo gën ñu ñàkk. ci xam lu am solo. Mhm. may nit ki jën jàngal ko moo gën. waaw ah, loolu dëgg la waaye jamono ji dañu dafa dañu toll. mën napp dafa jafe. waaw kay mais jamono bi ñu toll nii. Ah. en tant que état yor nga ay boroomi xam-xam. yor ay mécanique yoo xam mën nga koo teg selon nga xool sa réew fi mu toll fi réew mi toll nii am na nu ñu mën a organiser woo ci feebar bi am na ñu mën a organiser ci nit ñi ba ba population bi feebar bi parce que li ngay bañ ci feebar bi li nga ngay bañ feebar bi defal la ko man nga jaar yoon woo xamante ni moo gën a bon feebar bi waaw ci naka xam nga tey dund bi mënut a daj Sénégal yëpp moom nañ ko xam dëgg la moom mënul daj senegal yëpp même bu demoon ba daj Sénégal yëpp mhm. doyu yor yow dund bi la jëm un mois mois trois mois c'est-à-dire ñun suñu état yi suñu état yi lii suñu cat mooy seen intérêt personnel la ñuy ba sacrifier seen peuple waaw intérêt la ñuy ci kaw ñu ngi xalaat ku leen baal seen bor ak ndimbal yi nga xam ñu di jox ay quelques personnes des fa riche nekk ay millionnaires nekk ay milliardaires ay milliardaires ñu leen gën a ba ñu sacrifier seen peuple loolu loolu boobu baaxul. ok loolu daf ñuy faral di dal. te it man lenn laay xaw ragal. mooy est-ce que dund bi. Mhm. du benn genre signe boo xam dañ ko dañoo bëgg a dem ci confinement total. Mhm. ah. tëj ñëpp. waaw parce que loolu tamit bëggoon bëggoon naa ko laaj ndax. Euh, nit ñaa ngi koy laam-laamee. ne comme cas communautaire yi nga xam ne mi ngi commencé bëri président wax na ci lamiñu boppam ne bu dëkkul ci confinement la ñu jëm. Mhm. ñu jàpp ñu bëri jàpp na bu ñu seetle woon dund gi tey ba mu ba mu daj ba mu ci lu ci foofu lañ jëm. mais xam nga tey tey fi mu ne nii confinement total. bu ñu mm. demee ba jëm si. Mm. dund bii mayuñu pour ñu am confinement total. parce que bokkuñu si réew yu mag yi bu doon réew yu mag yi dund ba ñuy joxe mhm. du doon ceeb ak dugub ren lay wax boo soxlaa da ngay woote ñu indi la boo soxlaa añ da ngay woote ñu indi la nga daal di lekk def si popel bi mhm. boo soxlaa ndékki noonu mais ñun àgguñu foofu mhm. kon confinement total ñun mënuñoo àgg foofu am na réew yoo xam ñoo ñu ëpp doole mais du ñu def confinement total dañ koy organiser ñuy dem ay Suède lu mel ni que ay Suède ak yooyu ñooñu am nañ doole te période bii nii maa ngi déglu Jazeera seen journal kero wax ni Euh, Amérique sax nee na nee na ci fin mois bi dina ubbi yenn yenn kii yenn wilaayaat yi. Mhm. maanaam yenn yenn dëkk Amérique yi pour ñu mhm. commencé di dox. Mhm. fi na Danemark ko commencé nañ ubbi xale yi ñu ngi commencé dem di jàngi. waaw ñu ngi commencé di dem jardin di nangam di ubbi ndànk-ndànk. nit ñaa ngi jëm ci ubbi ndànk-ndànk te ñooñu seen cas ba léegi wàccagul. mais dañ koy jéem a gérer di xool nu ñu koy demee. mais ñun nañu gérer cas yi ñu am mais confinement ko defee di ngeen di problème. parce que xam nga lan la lay jural tey am na ko xam day nekk si biir këram. Mhm. pour mu dee si biir këram mu génn dee ci mbedd mee ko gën kon loolu nañ ko xoolaat maanaam c'est-à-dire ñu xool euh, suñu état yi. Mhm. ñetti nit ñeenti nit. Mhm. liñ siy gagné ba war a sacrifier peuple bu toll nii mënut a nekk. nañu xool nuñ ko organiser mais confinement total. Sénégal attanu ko attanu ko sax ñetti fan waxuma laa 10 jours waxuma laa 15 jours waxuma laa 1 mois. macha allah mënul ma sha allah euh, jërëjëf professeur euh, ma waxtu wa ngay dem incha allah euh, ba ñuy dugg rek ci ay ay yi nga xamne ne ko wara ko tay euh yaakar na ba lañ fi dajé wat dana fekk bo moytuwul ñu dugg ci koor gi te koor gi toujours commencement bi yeen say da na am ay wouté te wouté bi likoy waral moy ci séntu wi manam ba légui aduna euh, du ma wax aduna aduna am nañ problème commencement Ramadan ci naka la maanaam naka la ñu war a séntoo xam nga sento wer problème wer problème bi du problème hmm. problème bi moy nit ñi foog ñu am ben yaatu hmm. ak euh, ouverture d'esprit hmm. ak ben niveau bi. Hmm. ñun nak niveau bobu lañu aggul suñu problème mais problème bi du wer bi. Hmm. gis nga babakar du force mhm. ñun sénégal yépp ñu do koritandoo kooku du force mhm. mais force la ñun ñëpp ñu bëggante respectante waaw dëgg la comprendre mhm. xam nga mën yow force la ñi respectanté respectante mais du force gan ni nga yére bi nga sol mom la wara a sol sëriñ bi nga gëm mom la wara a gëm jakk ji ngay église bi may nga wara koku du force mais force la nak ñun ñëpp ñu nekk ay sénégalais dëgg la lay bo ñëw si problème seentu euh depuis ci sahaba yi ba légui même problème lañ doon am Babacar dama lay laaj lu saxaaba yi réglé wul. Hmm. taabiin yi réglé wuñ ko. Hmm. suñu mag ñu baax réglé wu ba tey tey mënuñu ko réglé. déedéet mun mënta nekk. mënta nekk ah, kon lan la ñu war a réglé. Hmm. mooy fexe ba yee nit ñi jàngal leen. bokk na si suñu suñu problème bii gën a rëy. te Seydi Hadj Malick radiyallahu wax na ko ci ki Kifaayatu Raaxibiin. Seydi Hadj Malick nee na euh, ki bëgg a sànq aw xeetam ki bëgg a sànq aw xeetam. xatal leen ci àdduna bi. mooy ki jël benn buntu ci xam-xam rek. tëj leen ci. Mhm. loolu seen xaj maa wax nee na boo jëlee benn bunt maanaam benn école kese mhm. benn ngir kese mhm. benn gëm-gëm kese benn opinion kese nga tënk si sa peuple nee na jamono ngi ñëw danañu xat te duñu am solution te leen sànq xam nga kon kon boo leen bëggee noppal mooy da nga leen di ubbi ñu yaatu lan laa jublu foofu mooy seentu weer ñaar la bu demee ci fiq dafa am lu ñuy wax ixtilaaful am lu ñuy wax ittihaadul dafa am ci borom xam-xam yi ñoo xam ne ñoom nee nañu. Mhm. dañuy sukkandiku ci li ñu wax ittihaadul mataali mhm. maanaam benn weer a am. Mhm. benn àdduna am benn génn waaye am. buñ ko gisee Makka. dañuy woor concerne àdduna bi yëpp. buñ ko gisee Corée. concerne àdduna buñ ko gisee Gambie concerne àdduna parce que benn weer la benn kii la ñooñu mooy ittihaadul mataali ñooñu ña fa sukkandiku. Mhm. kenn mënu leen génne si diine boo si génne la fay des du bari. dëgg la seeni i preuve it preuve yu tegu la. Mhm. ñoom ñu ngi sukkandiku ci xaddis yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu wax ni. Mhm. woor leen su ngeen ko gisee. ok dog leen su ngeen ko gisee. Mm-hmm. ñoom xaddis boobu nee nañu xaddis bi itlaax la. maam mm-hmm. dañ koo généraliser. Mm-hmm. woor leen su ngeen ko gisee néewul su ngeen ko gisee màkk néewul su ngeen gisee yaman su ngeen ko gisee gàmbi su ngeen gisee nàngam. maanaam lamar jooju daal kenn génnu ci. kenn génnu ci. su wugg kenn génnu ci. te àdduna bi yëpp a ko bokk. ñoom foofu la ñu sukkandiku. te seen preuve boobu nañ leen ko nangul. dëgg la am ñoo xam ne dañoo sukkandiku ci ixtilaaful mataalia mooy gox bu nekk ak seenu gis comme tay Sénégal ah wer man na fe feñ te wa gambi duñ ko gis. ah wer man na sen Sénégal te wa mal duñ ko gis. kooku mooy ixtilaaful mataalia. nit ñi ci sukkandiku. ay boromi xam-xam lañ ñoo xamni kenn mu leen genn ci dina bo ci genn la ci dess du bari seeni i preuve dafa leer. ndax yonent sallallahu alayhi wasallam moo ni topp leen ma top samay sahaba te Yaman. dafa na Muaz la. bi mu nekké Yaman. euh Muawiya bi mu nekké Yaman. Muaz bi mu nekkee Yaman mhm. am ku fa ñëw ne ko ñun day démb la ñu woor par exemple samedi la ñu woor mhm. mu ne ko ah mais waa Màkka ñoom vendredi la ñu woor mhm. kon lu tax mu wóor leen waa màkk te Màkka Yaman ñoo frontière léegi lan la ko Muaz dañu ko li ñu yonent bi jàngal mooy gox bu nekk ak gisam xam nga kon kooku xaddis biir dëgg la kon kooku mhm. ñooñu sukkandiku ci ne mhm. kon xaddis bii comme yonent bi ne moom jàng ndax xaddis am ndax euh, saxaaba mhm. su àttee loo xamante ni amul xalaat ci wàllu diine dañ naan du xalaatam xalaatu yonent bi la parce que dafa ni yonent bi moo ñu jàngal gox bu nekk ak gisam kon loolu dafa delluwaat ci yonent bi léegi nag tey ñaar yi kenn ku si nekk am nga sa preuve hmm? léegi nag kon tey Sénégal bu ñu séentoo ah Sénégal daal di gis sénégalais woor mhm. sénégal gisuñu mhm. mali gis am ñu ne ah comme mali gis nañ ñoom dañuy woor mhm. wala comme màkk gis nañ dañuy woor wala comme guinée gis nañ dañuy moor ñu dugg si li ñuy wax ixtilaaful mataali ñoom it dañ leen koy nangul dëgg la kenn ku nekk ñu nangu ñu ñu xam ne am na li nga def am na teguwaay am na teguwaay waaw parce que nii la yàlla bind àdduna ndax euh, Babacar ni ngay génn ci mbedd mi tasanteeku gàtt tasantee ku njool mhm. tasantee ku ñuul mhm. tasantee ku sansé tasantee ku sansewul mhm. nga mën a supporter loolu lépp tasantee kuy dox tasantee ku yor oto ah, noonu nit ñu wuutee boo ñëwee ci fiq ci ahkaam fiq yenn àtte fiq yi noonu la ñu wuutee macha allah tegu ci tegu li muy wuute wuute lu nekk am na teguwaay bu am na teguwaayam kon nag yow tey jàppal sa teguwaay nga gëm ko jëfandikoo ko bu ko defee kase des lay teguwaayam di gëmam nga respecteel ko ko jàmm na ñooyu macha allah mu nekk ak ñu sax ci ak màndu te waaye benn question rek bala ñu dugg ci aaya bi mooy Eh, yenn saa yi eh, ñi nga xamne ne seen xam-xam dafa jëm ci walu bidiw ak wéra ak jant muy astronome eh, ñom yenn saa dinañ ko dinañ ko gis ci seen xam-xam fu nekk ni tay mën nañu mën nañu la wax wér wi kañ lay genn mais amna genn gu muy ñoo xam dañ xamne wér na genn mais bëtt mënu ci parce que yenn dañ lan la fekk da fi fekkant ak jant bi bu jant bi dem da koy est ce que du du moy mot li hadith yunus sax fa in xuma alaykum fa akmilu iddata salatin. très bien point bo point bo am solo la mm-hmm. boo ñëwee ci ci borom xam-xam yi dañ see xaajaloo ñett. Mm-hmm. dafa am borom xam-xam yoo xam ñoom nee nañu nanguwuñ astronomi mm-hmm. ñoom nanguwuñ ko calcul yooyu nanguwuñ ko. Mm-hmm. ñoom daal la xaddis ba wax la ñuy wax ay consommateur lañ. gis leen gis nañ ay calcul ak yooyu ñoom nanguwuñ ko. ñaareelu borom xam-xam bi. ñoom nee nañu xam-xam. la yàlla gën a respecté moom la teg ci jiital. ba ñuy wax ay affaire yu gis ak yooyu gis xam-xamu ko ëpp doole. parce que yow xam nga loo xam ne gisoo ko. da gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngaa gis fa muy waxee te pourtant am nga xam-xamu julli xam nangam ñoom nee nañu xam-xam moo moo ëpp doole ñëpp mm-hmm. ñetteelu catégorie bi mm-hmm. ñoom nee nañu nañu boole ñaar yi ñu waxtaan ba trouver solution nañ boole ñaari ñu waxtaan ba mm-hmm. trouver solution c'est-à-dire bu ñu séentoo ba pare gisuñu ñu xool borom xam-xam bi ñu wax ñi méngale ko ba am mais ma leen di wax ne euh, gis nga àdduna bu dee dox il faut nga dox ànd xam-xam parce que yàlla ci boppam ba muy wàcc alquran sax dafa ni borom xel yi laay waxal ñi am xam-xam ñoo mën a jëriñu ci waxu yàlla tey ñi ngi julli tusbaar tàkkusaan timis li ñuy julli heure yi ñuy julli tusbaar yëpp kenn julliwul tusbaar ak tàkkusaan timis ca na ko sunna jàngale mas ngaa gis tusbaar jot rek ni ñi daal di génn taxaw taxaw ba xool gis sa ker gi def noonu déedéet sa montre ngay xool dëgg la <laughs> Ah, dëgg la la montre boobu noonu. <coughs> Mhm. montre boobu noonu ci weer wi la ci ci ci jant bi lañ koy jëlee. Mhm. waaye léegi nag kon yow nan nga mën a nangoo ni bu tusbaar jotee montre bi moo la koy wax. takkusaan mhm. timis yëpp montre bi moo la koy wax. te montre boobu ñu ko defar même nit ñooñu ñoo ñoo ko defar ba wan ne la weer yu mën naa feeñ nangam mën nañoo feeñ nangam. parce que mën nañoo juum nag. te it am na yenn dëkk yoo xam ni Euh, pour nga séntu fa weer ba gis ko day jafe. dëgg la comme par exemple boo demee fu mel ni ay Égypte wala yenn dëkk yenn dëkk désert yi. Mhm. nga xam day am pollution 24 heures sur 24. Mhm. weer mën na faa génn pour nga gis ko dafa jafe. Mhm. mooy fa in xumma pour nga gis ko dafa jafe. léegi su boobaa nag boroom xam-xam ya fa nekk mën nañoo nattable ba xam ni. heure bii nii wala jour tel wala nangam weer mën naa feeñ. Mhm. bi si des it mooy astronomie ak euh, kii tamit ay ay calcul la mën mhm. nañoo juum tamit. dëgg la waaw mën juum. waaw loo xam nga euh, maanaam li ma bëgg a leeru fay nxuma aleykum parce que ñu bëri ci borom xam-xam dañ ne yonent bi saasam baatu ru'ya la jëfandikoo jëfandikoo fa izaa ra'aytumul hilaala. Mhm. Euh, mu ngoog bu ngeen gisee weer yi ngeen woor. waaye fa in xuma aleykum. mooy waxul ne bu fekkee weer wi génnul. dafa ngeen ngeen ngeen mottali fanweer. waaw waaw mais baatu fa in xumma. waaw nga xam ne fa in xumma aleykum faqdiru. waaw fa in xumma. waaw faqdiru faqdiru. am na fa in xumma aleykum fa akmilu iddat. am na fa akmilu iddat am na fa aqdiru. fa in xumma. baatu xumma boobu. borom xam-xam dañ koy firee ñaar. mooy am na pollution. wala xiin na ba mënoo koo gis. benn. baatu xumma bi dina firi tamit. fi fi weer bi cité woo. ah pour gis ko dafa jafe. maanaam pour gis ko mm-hmm. dafa jafe moo tax nga dégg ñaa la weer dina nekk si place sàngam temps temps de nangam mais pour bët gis ko dafa jafe mm-hmm. léegi bu boobaa nag faq diru mm-hmm. baatu baatu faq diru boobu noonu duggatul léegi ci gis benn duggatul ci mottali tamante mais dafa dugg ci xam-xam <laughs> dégg kon baatu fa in xumma su demee ba nga xam ne xiin na wala am na pollution ba mën leen koo gis. Mhm. fa ak mhm. mais am na baatu fa inu xuma boo xam su demee ba nga xamante ni moom weer mënatul mënu leen koo gis ndax fa mu mhm. sute wala nag mais faq diru. baatu faq diru nag day day duggwaat ci wàllu xam-xam. waaw ndax mën nañ koo mën nañ koo calculer ba xool ko <coughs> waaye daal man man bi ma si xalaat mooy àdduna bu dee dox. xam-xam moo koy doxal. xam-xam avancé na léegi ci fiq xam-xam avancé na léegi ci wàllu technologie mm-hmm. ak wàllu astronomie mm-hmm. mais ñoom ñaar bu ñu toogee mm-hmm. bu ñu munt am solution da leen neex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 العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم فتبارك الله صدق الله العظيم جرجف سيد الحاج مالك جن فتبارك الله في القرآن جنيخ جو أم صلو جوجو di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla sàmm la te aar la bi jeex na bil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon mhm. euh, sëriñ Ousmane ñi nga war a jàngat tey aayat yooyu mu bu ngeen ko ngeen ñi nga xam ne yéen ngi déglu te bëgg tiim seen téere dem nañ ci suuratu Baqara muy surat 2 aaya 183 ba 185 incha allahu taala moom la ñu war a jàngat tey euh, professeur euh, aaya bi mu commencé yaa ayyuha alladina amanu kutiba aleykum siyaam jàngatoon nañ ko bii passé ba ca laalakum tataqun ja mu teg ca nag ayaaman maadudaat ay fan yu limu la fan yooyu tuddul yan fan la euh, yan yan yan yan yan fan lañ lañ euh, maanaam la jublu ci loolu ak tamit ndax euh, koor parce que kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhi min qablikum ndax avant ñun avant xeetu yonent bi sam di ñëw ndax ñoom ay fan lañ daan woor wala weer wala ay weer maanaam lan ci leeral loolu daal ayyaama mahdudaat waaw fa tabarak xaj Babacar laaj nga lu am solo mm-hmm. xam nga boo xoolee émission bi passé mm-hmm. ñi ngi firi woon ci ne yaa la ladina amanu mm-hmm. yàlla ne yéen ñi nga xam yéen a ma gëm mm-hmm. farataan naa ci yéen koor mm-hmm. kama ba ala ladina min qablikum comme ni ma ko farataale woon ci ñu paase woon li tax mooy ngeen ragal yàlla léegi nag nga laaj mu ni ayyaama maadudaat ay quelques jours quelque jours gis nga yàlla bëri de Euh, yërëm gum yërëm xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba bu leen dee teg dara. Mhm. bu leen dee teg dara. dafay psychologiquement. Mhm. psychologiquement mhm. day travailler seen psychologie. pour mu yomb. xam nga lekk ak naan boo xëyee nit ki ne ko bu lekk bul naan. da nga koy frustré. dëgg la mais bokk na ci euh, yërmande yàlla. mooy day travailler si psychologique. ba ba bu lay tere lekk ak naan du metti bu nee baatu imaan yéen ñi ma gëm. kon nga xam ni yow mii am na benn maanaam. am na fu mu la teg ah ay sama copain te mën laa sama copain rek. Mm-hmm. nga nga gestu xam ni gëm naa ne sa copain laa. Mm-hmm. copain kenn du ko teg na naka su dul noonu lu metti la. Mm-hmm. bi si desit mu ni farataal naa ci yeen koor comme ni ma ko farataal ñu passé mhm. parce que nit dafa bëgg euh, ki reva euh, ki wujje ak kujje waaw te ñun dañoo japp ni mhm. te mo am sax mhm. ñoo gën yonent ñoo gën yenen xéet comme légui ñoo gën yenen xéet yi nak ah kon tay lu wala xéet yi wara nang war nañ ko mëna nang ah tey la euh, sama aaw bi ma gënal sama ñaareel bi boo jàkkoon sa aaw bi nak yow ya ma gënal sama ñaareel bi ah tay loko tek rek batu ya ma gënal sama ñaareel bi loko tek rek wala tay li ma lay ko ñaareel mu def ma nangam day gën a góorgóorlu mm-hmm. baaru kujje googu da si ñëw uh-huh. bi si desi nit ki nit ki dafa dafa dañ kumpa mm-hmm. lépp loo koy sant day bëgg finition mm-hmm. moo tax nit boo ko santee dara euh, boo ko waxee finition bi rek te taqu na baatu ragal yàlla ci al ku gëm yàlla nga ne ko ragal yàlla nga fay jëlee finition bi rek da koy kontaan loo mais bi si gën a garaawati gën see neex mooy yàlla dafa ni ay yaamam maadu ay quelques jours la mm, yàggut kay baatu ay yaaman kooku jamu xilla la maadudaat jamul xilla la lan mooy jamul la maanaam ay yaaman ay jour la de mhm. xam nga jamoo la pluriel la mhm. mais pluriel bu ndaw la ay mhm. quelques jours boo ko doon firi quelques jours maadudaat yu yu yu limuwul daal yu ndaw a ndaw fan yu rek fan yi yem a léegi tey su ma ñëw su ma su ma toogoon ba yàgg ma leen ah xam naa ne daal fan yii moom dañuy daal di aj añ bi yaa ngi dégg mais ay quelques jour la rek du yàgg gis nga da ngay daal di kontaan ndax jàpp nga ni du yàgg noonu maam yow lii dina mas a jeex dina mas a jeex du bari bariwul dëgg la bi si desit mooy Babacar xoola ay yaaman maadudaat mhm. ay lim ay fan yu lim mhm. Babacar àdduna lépp lu ñuy lim rek bariwul lépp lu ñuy lim bariwul ah. lépp lu ñuy bariwul lépp lu ñu xam lu ñu xam surface bi yaatuwul tey su ma ñëwoon ne la ah che yor ci alal kenn mënu koo lim mooy bari na waaw bëri na wax nga dëgg. ah kenn mënu koo compter mooy bëri na xamul nu mu toll wallaahi. mais in taudu ni'matallahi laa tuxsuha dëgg la de. xéewal yi leen yàlla defal dañuy laata mënu leen koo lim. parce que dafa bëri. dëgg la parce que lépp loo mën a toog compter ko rek mooy bëriwul. tey. Babacar ma jox la bokk na si yërmande yàlla. àjjana àjjana si boppam. amul benn aaya ci alquran. bu limité àjjana bu la wax surface su àjjana. déedéet amul de. xam nga tey booy tabax kër naan la mhm. ah euh, cent cinquante mètres mhm. carré la mhm. wala trois cent mètres carré la wala euh, mille mètres carré la xam nga kër gi noonu la xam na surface fu mu commencé day ak cóob mais àjjana lan la yàlla wax arduha samaawaatu wal ard maanaam yaatuwaay àjjana comme asamaan su baatu comme da ko misaal rek da ko ëpp na ko foofu dëgg la ah te digg asamaan su kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll kon tey fi ne ne àjjana kenn xamul surface ba nu mu toll moo tax kenn mënu koo feesal mais xanaa ma ne bokk na ci yërmande yàlla aay bi gën a neex ci yërmande yàlla nga siy gis yërmande yàlla dëgg-dëgg mooy la am la an na jahannama la am la an na jahannama waaw mosoo mosoo dégg loolu de xanaa xam nga tey man kay maa ngi nee naa dar ah. la am laa na jahannama ci xam nga yàlla na la am la an na ma ah. gin naa ne man yàlla dinaa feesal safara waaw ah. <laughs> kon fasara safara yaatuwul parce que luy feesal bëriwul <laughs> neel benn est que bi si desit bi yàlla ne dinaa feesal safara est que ah xanaa xam ne benn loxo nit rek mën na fees safara yonent bi salaa nee na yowmal qiyaam yàlla dina jël ab yéefar war koo dugal safara mm-hmm. yaatal ko mbagg yi diggante mm-hmm. mbagg yi mm-hmm. mën nga see dox mën nga see dox maanaam dina mat soixante-dix kilomètres toll nañu mm-hmm. fii ak Tiwaawan mbagg yi diggante fi ak mbagg yi toll nañu fii ak Tiwaawan war a toll ah, léegi kon benn yéefar boobu mën naa dugg safara mu fees ah, mais xoolal waxu Cheikh a baax boobu noonu uh-huh. mu yow yàlla yaa ni dinga nga feesal safara uh-huh. ah te boo ko waxee mën nga koo def wallaahi ma lay ñaan nga jël sama jëmb ji dugal mm. ko safara gomfale ko ba mu fees ba kenn du xaj kon Cheikh Al Hadj Abdou Daba bu xamoon bu xam bu xamoon ni safara benn nit du ko fees du ko ñaan parce que nit du ñaan lu impossible dëgg la kon xam na ni benn nit mën naa fees safara wallaahi wallaahi lan laa la bëgg a xamal foofu mooy kon surface safara yàlla wax na ko non seulement dina fees te kon comme que day fees rek mooy bëriwul dëgg la bi si des yonent bi salaa salaam nee na benn yéefar mën nañ koo xëcc gonfale ko ba mu toll ni fii ak fii eh, mbagg yi toll ni fii ak Tiwaawan waaw mm-hmm. <laughs> kooku mën nga ko dugal safara mu fees la de <laughs> <laughs> kon boo déggee dinaa feesal safara mm-hmm. in ma jëmee da nga yaakaar ne lu lu rëy la lu nàngam la mm-hmm. fekk na boo demee benn nit sax mën a dugg safara yàlla ne fees na ay la a la léegi nag mooy baatu ayyaaman maadudaat ay bis la yu ñu lim kon mooy luy jeex la bis des mooy aaya bii nii aaya bii nii bi yàlla di wax naan koor kat ay fan la. ay fan yu ñu lim la yu ñu mën a compter la. Mhm. booba koor nekkul woon obligation. waaw ah. déedéet. nekkul woon maanaam du comme neex def comme neex bàyyi. waaw comme neex def comme neex bàyyi. Mhm. bu la neexee nga woor ñaari fan bàyyi ba déwén. Mhm. su la neexee woor benn fan ba déwén. su la neexee woor fukki fan bàyyi ba déwén. maanaam baatu ay yaaman maadudaat mooy kooru xale bu am sept ans bu am sept ba baa muy am 10 ans. kooram googu. comme tey weeru koor jot ñu ne xale bi ah daal ba woor si ñaari fan. nga woor premier jour bi dog. dama dem ba ba si kanam nga wooraat benn dog. koor gi jeex nga ne am naa juróomi fan. bu déwénee nga ne ah daaw de amoon naa juróomi fan tey dinaa am juróom benn. Ah, ah, ah. mooy baatu ay yaaman maadudaat. ndeysaan est <laughs> sa doom ji ni nga koy jàngale koor. noonu la yàlla commencé jàngal xeetu yonent bi salaam mag ñi koor. parce que xalé bu am 10 ans tay uh-huh. wala bu am 7 ans nga ne ko uh-huh. woral weer wi yëpp uh-huh. day fa lay jaare sa bañ l'islam deug la amna ño xamne sax dañ naan la woral ba ba añ jot nga bañ ndékki jeex na nga eggal après nga eggal ba ñu la wooral ba jotté day contane man wooroon naa dëgg waaw jeex na tey am naa ñaari fa ñett lo moy mm-hmm. baatu ayyaman ma'dudat mm-hmm. ma sha allah tabarakallah uh, muy lu am am solo ndaysan ma ngi fàttaliku ba ñu nekk ci daara ja yenn say bu bu suñu bu suñu wayjur ñewé dañu di ñu wala kenn ci suñu kilifa Eh, danaan la eh, muñal rek jàng yàggut xam nga loolu daf mu ngi lay soulager wane la jàng yàggut bu demee rek da naan paa bi day caaxaan hmm. man ni ma yàggee ci daara ji mu naan ma jàng yàggut waaye boo fa jógee da nga xam ne dañ naka jàng yàggut macha allah eh, ayyaman mahdudaat mu tekki ne fa man kaana minkum maridan ku feebar ci yéen فمن كان منكم مريضا او على سفر لكن فيما بغي ني جانغ رك موي مريضا غوغو مرض بوبو مرض القلب لا ولا مرض الجسم ولا بير بي مت ولا بوب بي مت ولا كورونا بان بان مرض لا خم نغا يالا نينا تي كور فمن كان منكم مريضا كيب كو خامي داغا فيبر بول وور بايل بو كور جي جيخ نغا فايكو مريض لو خم نغا فيبر لا واخ mais jàppal ni alquran toujours yàlla bu wax ay nit lay waxal ak i xel moo tax comme ay nit lay waxal ak i xel kon bu nee feebar nit ñi ak boroom xel yi ñoom ñoo war a jël feebar boobu xool ndax mën na laa teree war wala mën laa teree war est-ce que moo tax boo xoolee alquran yenn saa yàlla dina wàcc benn aaya alquran boo xam ne koy adressé mooy médecin yi yaa ngi dégg waaw yenn saa yàlla wàcc ay alxuraan boo xam ñu ngi ko adressé mhm. mooy technicien yi mhm. yenn saa yàlla wàcc ay alxuraan boo xam te ñi ko mën a adressé mooy astronomie mhm. yi yenn yàlla wàcc ay alxuraan boo xam te ñi nga xamante ñoom ñoo ko mën a xóot ba kam ko mooy eh, navigateurs yi ñu nekk si wàllu géej-géej yooyu marajal baxray <laughs> macha allah kon aaya bi faman kaana minkum maridan képp koo xam ne dafa feebar léegi feebar boobu nag ah faqih bi du la ko wax ki jàng xaddis di la ko wax. ki tari alxuraan di la ko wax. ki spécialisé wu ci feebar moo la ko mën wax. muy médecin bi muy médecin bi. médecin boobu nag spécialisé wu ci wàllu feebar nag. ba noppi gëm yàlla nag. kooku moo la mën a xamal ne la feebar bii kat moo la mën a teree woor. àndul ak koor feebar bii ànd na ak woor. parce que am na yenn feebar yoo xam te ne ànd na ak woor. au contraire sax si waax. am na feebar yoo xam ne nag àndul ak woor. léegi nag loolu nag pour nga mën koo xam du yow miy jàng aay bi yaa ko mën a xam. déedéet ki spécialisé wu ci mbir moom moo la koy mën a xamal mm-hmm. moo tax alquran rek mooy téere boo xamante ni mbooram spécialité yépp mm-hmm. dañoo leen di soxla macha allah parce que yenn saa yi dina indi aay yoo te ni nit mënu see génn ñoo mm-hmm. wax ci alquran dalilu nassi ak dalilu aqli bu ñu dajantee nooy def euh, maanaam aaya bi dafa wax léegi bi mu waxee aaya bi xel taxaw. ma jox la si benn exemple. xam nga alxuraan nee na summa atimu siyama ila layli ilal layli. kulu washrabu xataa yatabayyana lakumul xaytul abyad minal xaytil aswad yàlla nee na boo wooree ba ngoon. kulu washrabu. lekk leen naan leen xataa. ba baa xëdd. xam nga loolu mooy loolu mooy wax moom mooy aaya bi. waaw mais aaya boobu borom xel yi lay waxal. maanaam xel mayu la fi mu bu ñu dogee nga teg sam ndox di naan di lekkoon si biir a toj bi ca dëgg di lekk ba booba ba booba ndooyee ne di mën nañ ko <laughs> ah. maanaam teg sam ndox di naan di lekk di ah. naan di lekk di naan di lekk doo julli boo nga fii si ba tëf lay def kon dalilu la aqli ak dalilu nas bu ñu dajee am na foo xam te ne dalilu aqli bi nga fay jëfandikoo lekkal ci boo ko soxlaa naanal ci boo ko soxlaa ah, lekkal ci boo ko soxlaa mm-hmm. naanal ci boo ko soxlaa mm-hmm. ni ngay lekke xamal ni ngay naane mm-hmm. kon nag fa man kaana ku feebar ci yéen ba mun munta war a woor mhm. feebar bi koy teree woor nag ki xam feebar moo la ko mën a wax mhm. Mhm. benn wala yow mii nday mbilli ji xam sa feebar yaa ko mën a wax sa bopp waaw mooy fa man kaana min ko maridan macha allah muy la am am solo eh, da nga gis yenn saa yi classe ak Moussa Diop gi ñoom bu koor gi ñëwee ñooy fi enteel seen bopp seen feebar naan man mënu maa woor ndax sama lii sama laa te la yàlla xam doy na fa man kaana minkum maridan foofu dafa wax marid ba tamit teg ci aw ala safarin aw ala safarin foofu mu mu mu indi baatu ala boo waxul ne aji tukki mais ki nga xam dafa nekk ci kaw tukki loolu nag naka lañ ko mën a déggee xam nga boo xoolee aaya bi fa man kaana minkum maridan koo xamante ni dafa feebar ci yéen li mu war a wax ka mooy aw saafiran mm-hmm. wala muy aji tukki mm-hmm. wala aw musaafiran mm-hmm. aw musaafiran mais mu ni aw ala safarin mm, waaw ala safarin waaw lu tax loolu euh, xam nga Babacar tey tey la lan tey la vendredi 17 ans non la ajjuma tey la ajjuma uh-huh. <laughs> jàngal nga lànk rek doo jàng yii foog ñu yóbbaal ko première <laughs> tey vendredi ajjuma la <laughs> xam nga tey vendredi 17. Uh-huh, uh-huh. ah uh-huh. vendredi 17. Mm-hmm. man ma ni ah comme vendredi tey 17. Mm-hmm. léegi suba samedi damay tukki. Mm-hmm. Ah? xam nga suba samedi damay tukki. waaw kon man dogg naa nekk naa musaafir. Hmm? mais aw droit dog dog kooru tey gi vendredi tey gi. waaw dama koy woor. Ah? léegi su ma xëyee suba. waaw su ma xëyee suba. ba génn nag. ba ba dogg nag ba nekk si kaw tukki bi. foofu nag bu ma neexee dog. Hmm. waaw foofu la dog di amee. moo tax mu ne ala safarin. Hmm. maam dalay fekk ci kaw yoon bi. Hmm. tey su ma xëyee suba. daal ni ah man de ma xëy suba rek ne man de suba war naa mën a tukki. ma xëy samedi bi ma xëyee samedi. tukkiwu ma. tukkiwu ma tukkiwu ma tukkiwu ma tukkiwu ma tukki ba samedi bi jeex du ma dog. léegi bu ma xëyee suba tamit bala maa lekk ka naan damay wóor ni nekk naa ci kaw tukki maanaam oto bi ñëw na ba ma yéeg samay bagage ba dem su boobaa nag mën naa daal di dog mais tant que tant tànk dëkk maanaam euh, euh, dogu nga ci tukki mais tànk nekk goo ci tukki bi. tànk nekk goo ci kaw tukki bi rek ah, mën a goo dog. macha allah waxuñu la nga xëy rek ne ah tey kat damay tukki rek. Mhm. yéegaguma ci oto bi demaguma fenn maa ngi toog tukki bi aussi dafa am distance. waaw dina am distance. mais nag ci ñenn ñi. ci ñenn ñi. Mhm. ci ñenn ñi tukki bi. waaw maanaam euh, tukki bi tax nga dog. Mhm. premièrement nga ñëw si jëmbi tukki bi. bépp tukki boo xam dagan na ngir mooy yàlla mm-hmm. tukki wa ngir defi lu bon mm-hmm. boobu tukki boo xamante ne dagan na rek ci mm-hmm. lislaam may la nga wàññi léegi distance bi boo ñëwee ci mazhabu imam malik da ko def quatre vingt boo demee ci yeneen mazhab bi am na ñu ko def quarante kilomètres mais boo demee ci yeneen bi ñoom defuñu kilométrage bi ñoom dañ ne booy tukki rek. moom lépp loo xamante ni tudd nañ ko tukki. comme jógee fii dem Kër Massar. waaw na tu ko tudd ab tukki rek. Ah, waaw ça dépend ci tukki xam nga tey fi ne nii tey boo jógee fii. Ah, ah. yow Babacar. man mën ngaa jóge ville. dem Kër Massar ah. waaw xam nga doo ko tuddee tukki. Mhm. waaye demal ca àllu Saalum ba wala àllu Kajoor bu kawe ba. Mhm. nga gis kër kër ma Njoba ak kër Birima. waaw te pourtant boo xoolee kër kër ma ak kër Njoba. Mhm. distance boobu noonu. moo gën a jege. fii Kër Massar te ñoom dañ koy tukki dañ koy mm-hmm. ana sa bàyyi da tukki na de dafa dem kër ma jobba mm-hmm. wala dafa dem kër kër kër kër Birima te fekk kër Birima ak kër njobba mm-hmm. diggante Dakar ak fii ñoo ko ñoo ñoo ko ëpp mais fii tey dakaar boo doon jóge fi dem kër Massar kenn du ko tudde tukki mais fële na ne tey boo doon jóge kër njobba di dem kër ma dañ koy tuddee tukki te distance bi mën naa gën a gàtt moo tax tey Taymi ak yeneen mazhab yi nem nee nañu lépp lu ñu mën a tudde tukki rek xam nga lu waral lool mm. tey tukki doo ko doo ko doo ko xool ci ci kii bi ci kilométrage bi mm. Euh, euh, tey Babacar. Mm. ville boo jëloon taxi ville. Mm-hmm. taxi contour yooyu. Mm. nga jël ko. Mm-hmm. war a dem Kër Massar. Mm. heure dix huit bi nuy wàcc. waaw ah. mu war a dem. di nga lakk lu mat quatre vingt trois kilomètres. dëgg la de. <laughs> waaw ndax distance yi. fii jàdd jàdd yeeg yooyu. Ah. yaa ngi dégg. Uh-huh. léegi tey kon kon taximaan bu koor jotee. Uh-huh. taximaan moom bu xëyee ñaari kilométrage lay lay lay daw. <laughs> Ah, waaw wax nga dëgg de. ah suba ba ngoon da koy daw. Uh-huh. ok léegi nag kon lépp loo xam ni dañ ko tuddee tukki. am na borom xam-xam yu wax loolu. bu dee mesure bi ñu maanaam na nekk quatre-vingt-trois kilomètres. mais yeneen mesure bi nag quarante kilomètres mais. ñeneen ñoom nee nañu lépp loo xamante ni ci wàllu orfe ci wàllu mm-hmm. aada. Mm-hmm. ci wàllu logique gu nit ñi. seen mm-hmm. aada ni ñu tudde tukki. ñu ni lii mooy tukki. boo ko defee rek mën ngaa wàññi. xam nga foofu tamit euh, bo bo comme comme ni nga ko waxee euh, am yéene tukki te fii nekkoo ci tukki mi waroo dog yaakaar naa loolu la loolu la borom fuqaha yi di leer ci tawil tawilu baid ak tawilu xarib. waaw ba mu góob. waaw macha allah ah, ah. tabaarakallah euh, mu teg ci wa ala lazina yutiqunahu fidyatu taam miskin Euh, maanaam ñi nga xam ne munuñ ko dafa am lu ñuy remplacer koor gi mooy di lele waaw euh, aaya bi sax est-ce que est-ce que mi ngi mi ngi mu mi ngi kii ba léegi. waaw xam nga boo xoolee Babacar. Mm-hmm. yàlla bi mu ne farataal naa koor. Mm-hmm. dafa am ñetti catégorie mm-hmm. ci société bi. ñetti catégorie ci société bi. waaw boo xamante ni yàlla nee na moom may naa la ñu dog encore ah, bi mu nekkee obligation. Mm-hmm. mais am na ñetti catégorie ñetti façon nit yoo xam te ni yàlla nee na. Mm-hmm. may naa leen ñu dog. ñetti catégorie yooyu yan la. première catégorie bi mooy ki feebar. Mm-hmm. ki feebar ba médecin yi ne la mënoo woor. kooku day dog. waaw ñaareelu catégorie gi kiy tukki. day dog. ñetteelu catégorie ki ko mënul. waaw ñetteelu catégorie mooy ki ko mënut. ki ko mënut ok. xam nga nit mën naa bañ a ñàkk bañ a woor te du tukki. Mhm. te du mhm. ko mënut dëgg la fa man kaana minkum maridan mhm. première catégorie gi mooy ko feebar. aw ala safarin. ñaareel catégorie gi mooy ko tukki. ñoo ñu du ñu woor mais dañuy fay. sans euh, dépend. Ah. bu dee ki tukki. waaw day fay. waaw ki feebar. waaw sans dépend ban feebar la. ndax feebar buy wér la wala déet. Ah, ndax amraad muzmina la wala. bu dee feebar boo xamante ni da koo gaar nii rek mhm. circonstance la mu ñëw mu sibbiru mu wér jeex na xam nga après mën na fay mais bu dee feebar boo xamante ni nag mhm. moom giiru dundam la koy sooxaale ba tax mu woor ko mhm. kooku moom du mën a kii ñetteelu catégorie mooy ki nga xamante ni amul kàttanu woor mooy wa ala alladina yutiqunahu gis nga yàlla subhaanahu wa taala seetlu lii ma la wax nii bépp mbir boo xamante ni dafa xaw a sensible xaw a am correspondant ak bakkan maanaam bépp bépp atte déglu ci lislaam de déglu baax li mu la bépp atté bu nekk ci l'islam hmm. lëkkaloo ak bakkan hmm. nga xamante ni daanaka bakkan 80% wala 90% bakkan na si gàññe bu ko yàlla dee farataal wala mu koy tere da koy détaillé préciser ko mu leer hmm. dëgg la de wallahi <laughs> léegi lekk ak naan am na relation ak bakkan wala amu ko ah, ah? léegi alal nag am na relation bakkan wala amu ah, ko ah kay moo tax xoolal yàlla bi muy séddale miraas mhm. dafa séddale carrément cër yi wax leen kii yee ma war a am lii la war am lii nàngam mais gis nga fenn ci alxuraan foo yàlla waxee julli ñaata rakk la déedéet pourtant jullee gën a fort wallaahi doo gis fenn fu yàlla wax ne julli ñeent rakk la nangam ba ci ba ci bor digg leblante diggante nit ak nit moom ah. daf ko leeral ba mu leer mu ngoog parce que alal mhm. dafa xaw sensible mhm. ba noppi complexe mhm. bakkan laxasu si teg ci ay dil yomb ci mais bu dee ñeent rakk moom garaaw ndax ñeent rakk yi amul benn intérêt boo si am ah. moo tax ci julli doo gis fenn nombre yi ak heure bi fu ko yàlla di waxe mais tey boo ñëwee ci wàllu miraas nga xam ne séddoo alal la dafa am ñoo ko séqal te alal da ngay waaru foofu yàlla da koo leeral ke nit ñii ñoo war a am lii la ñu war a am mm-hmm. léegi boo ñëwee ci koor ñàkk lekk ak ñàkk naan mm-hmm. xam nga bàllu bakkan la. mais tax yàlla dafa préciser ne ñii ñoo war a woor ñii waruñoo woor ñii nii la ñuy woore. Mm-hmm. détaillé ko mu leer. macha allah wallaahi. léegi dégg mu indi ñetti catégorie mm-hmm. mais ci biir julli fan nga gisee l'islam fu ci biir julli fu yàlla de détaillé nag kii moo war a julli kii warut a julli. kii mm-hmm. moo war a nangam déedéet. julli leen rek. waaw yonent bi saa sa mooy ñëw ne nangam la a nàngam pour bëgg laa xamal ni euh, ñett yi ñoo am. ki feebar ki tukki ak wa ala alladina yutiqunahu gis nga aaya bi aaya bu xaw a naqare firi la waaw ñoo tax ñu la ciy déglu déglu aaya bi wa ala alladina ñi nga xam te yutiquunahu xam nga taax mooy firi kàttan ah la taqata lana kon wa ala alladina yutiquunahu kon dafa mel ne ala alladina yutiquun ñi nga xamante ni attan nañ ko fidyatun taam miskin ñi nga xam ne attan nañ koor mën nañoo bañ a woor léeg-léeg dëgg la de parce que foofu amul la laag yi. xam nga laa yutiquuna. dëgg la. bu dee alxuraan doy waar la. dëgg la. baatu waa alladina yutiquuna fii taaqa. Mhm. taaqa fii nii. Mhm. day firi ñaar. Mhm. taaqa dina firi énergie. maanaam énergie buy tax nga mën a mën a jëf. comme tey nit ki nga xëy lekk ba suur. lekk say say say orange. naan say vitamine. kooku xam nga am nga énergie. mën nga dox di nangam kooku day firi taaqa. Euh, lampe bi kat amul courant mhm. nga branché ko ci courant mu tak koku takala énergie la mhm. ne firi lolu auto mhm. hmm? euh, bi amul essence courant bi doxul nga wo mécanicien bi mu fexé ba défar courant ba courant bi commencé di fonctionner mu daw lolu taakala yutiquna taakala ben taaka dina firi ñi yan la lo lo atunul yan la lo atunul ok xam nga bab ko yow tay ni nga togi ni tay buma jëlone 10 saako kilo ciép ah teg ko ci sa dox yi est di nga jóg. dama dul yëngu yëngu mooy taaqa. xaa kuy kuy kuy jóg kuy jóg da yëngu professeur. Ah, kay kon baatu taaqa. Ah. dina fii mooy attanoo ko. Ah, est-ce que. ko. Mhm. parce que parce que mbir mi. mbir mi. Mhm. ak li la yàlla defal mënu koo tenir. Mhm. xam nga tey fi mu ne nii man Ousmane Ndiaye mi kenn mënumaa maa ne dix saa koy kilo ceeb. Mhm. attanu ma ko kooku wa alal ladina yutiqunahu ñi nga xamante ni koor. bu tegoo ci seen kaw. bu duñ mën a jóg. ndax attanuñ ko. fidyatun taam miskin nañ ko remplacer leele. est-ce que est-ce que macha allah. waaw ah. tabaarakallah euh, léegi nag li ma la mooy aay bi. ndax naasix la waaw naasix la man xam nga la moo indi problème aay ndax dañ ko nasaxal wala nasaxaluñ ko. parce que am ñoo xam dañ koy firee ne koor soo ko manee mhm. bu la neexee bañ koo def te leele ñoom dañ ko firee wa ala ladina yutiquuna ñi attan koor mhm. fidyatun taam miskin nañu leele jam <laughs> dégg mais aaya bi mënoo ko nasaxal parce que xam nga mënoo ko nasaxal ah. parce que dafa am solo ci catégorie koor mhm. mooy am na ñoo xamante ni wa ala ladina yutiquuna am na ñoo xamante ni am nañ soixante dix ans maggat mhm. nañ ay mhm. quatre vingt ans maanaam seen kattan seen seen kattanu yaram mënatul a tërir yenn xiif yi mënatul a tërir yenn mooy mag ma shay xuuxa ku dem ba maggat euh, te benn saxaaba defoon na ko ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam damaa bëgg di woor diiru dund yonent bi ne ko déedéet del wooru ñetti fan yu nekk koor gu nekk weeru nekk ñetti fan mu ni ko noonu am naa kàttan mhm. mu ni ko léegi kon del woor euh, tey bu subaa nga dog mu ne ko mhm. am naa kattan mhm. mu ne ko waa baax na kooku bindee ba màggat xam nga lu mu su ma yëgoon def la ma yónente waxoon ndax fi ne ni amatuma koo bàyyi ndax jaayante woon naa ko yónente bi kon wa ala alladina yutiqunahu mooy troisième catégorie ki nga xamante ni moom wóor na ko ni kii amul kattanu woor wa ala alladina yutiqunahu day dugg ci xale bi amagul kàttanu woor waaw bu weeree mën naa lot de. Mm-hmm, la day dugg ci. wa man noo ammihu nankusu fil xalq ku dema mm-hmm. dem ba am plus de soixante dix ans jëm mm-hmm. quatre vingt. wala sax mën na bañ a àgg foofu wala mën na koo passé. mais ay organam ak ak mageem mënatul a tenir yenn kii yi. macha allah tabaarakallah jërëjëf professeur macha allah. Euh, leer na nañ mu teg ca fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun lahu wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun euh, foofu euh, dafa mel ni maanaam. boo ngeen wooree moo gën xam nga bu nit nit boo ne ko boo defee nàngam moo gën mooy boo defee boo boo ñàkk boo ko ñàkkee defit garaawul yaakaar naa de wala duñ ko déggee noonu. très lu am solo nga laaj. léegi. Hmm. ma ñëw ci famanta tatawaa xayran. fa huwa xayrun la. Hmm. yàlla nee na. Hmm. ah ku munta na leele. waaw famanta tatawaa xayran ah koo xamante ni nag mën ngaa def lu ëpp lañ la farataal ci lu baax. moo gën. mais baatu famanta tawaa xayran foo waxeeru delluwul ci koor gi. Hmm. déedéet. fan la dellu. mi ngi dellu ci leele gi. Ah, maanaam bu ñu la waxoon tey mudd ngay joxe boo joxee lu ëpp mudd it baax moo gën. ok Ousmane Ndiaye kat amul kàttanu woor. ñu ne ko delloo del leele. del joxe ñam. mudd del joxe bis bu nekk 1000 francs mais Ousmane Ndiaye riis na am na xaalis xëy di joxe 1 million. xayru loolu de dëgg la moom Ousmane Ousmane Ndiaye riis na bëri na xaalis. amiin yaa rabba amiin amiin yàlla nay ñaan waay. moom wér wér yàlla na yàlla def balaa ajuma bi di ñëw waay. amiin. ngi dégg ah ñu ni yow kat génne nga azaka sa azaka un million la moo ci toll mais yow am nga xaalis am xaalis boo xam te mën joxe dix millions mën ko yokk ci azaka bi fa man data wa xayran fa wa xayrun la lii kat du farata koor la di rek du mhm. farata mhm. a ah, nga mën a def loo xamante ni ëpp na mhm. pour jaamoo ko yàlla fa man tatawa xayran fa huwa xayrun la kon lépp loo xamante ni dafa jëm xoolal fii la ma a ni lépp loo xam dafa jëm ci diggante luy jariñ nit luy jariñ nit loo xamante ni njariñ li day delluwaat ci nit yàlla nee na loo ko yokk rek baax na mais loo xam sa diggante sa borom la nag yamal fi ma la yemloo xam nga tey tusbaar tey doo kontaan ba ni xaar ma julli junni ràkk ndax kontaan naa ci yàlla. parce que junni ràkk yooyu ak ñaar ràkk yi amulul njëriñ yàlla. dëgg mais azaka bi nag. bu doon 1000 francs la. Mhm. nga ne am naa xaalis kontaan naa xaar ma def ko mille francs mhm. yàlla nee na alhamdulilah baax na. <laughs> yaa ngi dégg parce que bépp jaamu yàlla boo xamante ni nit da ciy gañewoo ak jaamu yàlla boo xam nit du si gañewoo mhm. jaamu yàlla bu nit di gañee yàlla nee na loo ko yokk baax na. mais jaamu yàlla sa diggante sa borom kese yàlla ne jërul yokk ndax man yokk gi amuluma njëriñ mhm. wàññi gi amuluma njëriñ kon ñamal fi ma la yemloo rek macha allah waaw <laughs> fa man taw fa xayrul lakum wa an tasuumu xayrul lakum wa an tasuumu xayrul lakum in kuntum taalamun gis nga aaya bii nii wa an tasuumu xayrul lakum mm. gis nga xam nga ne bañ commencé ba léegi àggun ci farataay koor waaw dégg ko ma ko léegi li ñuy détaillé nii yëpp neex la ak kum naqari booba koor nekkagul farata yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum booba nekkagul obligation moo tax mu ni comme nag yàlla nee na ah farataal naa ci yéen koor comme ni nga ko farataal ñeneen ñi mhm. ay quelques jours mhm. léegi nag wa an tasuumu mhm. su ngeen wooree moo gën am na nag borom xam-xam yoo xam wa an tasuumu xayrun ko dañ koy yóbbu ci dañ koy yóbbu ci safar ga tukki ñoom ñi ni boo tukkee woor moo gën déedéet parce que alquran mooy firi xaddis xaddis yonent moo gën a dégg dëgg la te moo ñu war a firi alxuraan dëgg la xaddis mooy firi alxuraan xaddis ay firi alxuraan tey boo nee wa an tasuumu xayru lakum boo wooree moo gën ci tukki na kon tey tukki boo bu dee tukki boo xam dafa dafa dafa amoo ci benn coono nga ne woor moo gën déedéet parce que firi bu yonent bi la ñuy gën a dégg sa firi yow firi yonent bi ñaar la jëfam wala waxam yonent bi jëf na wax jëf na mooy woor mooy tukki na dog tukki na dog d'accord wala d'accord tukki na dog tukki na dogloo nit wax na moom yonent bi saa sam nee na laysa minal birri siyaamu fi safar mm-hmm. bokkul ci mbaax ak ngóor ak jàmbar di wane da ngaa xobe ci diine mm-hmm. di tukki mm-hmm. di kon wa an tasuumu xayrun lakum bi mooy avant koor nekk obligation mais am am na foofu tamit ñu ñu ñu wax ne nit ànd ak yonent bi tukki woor te yonent bi terewu ko ko d'accord waaw am na am nañ am nañu wax lu mel noonu yonent bi tukki na woor dogul waaw tukki na dog ànd naa ak nit mu woor mu dogloo ko ànd naa ak nit mhm. mu woor waxu ko mhm. dara mhm. kon foofu maanaam tukki woor tukki dog foofu ngëneel amu fa bu ngëneel dee am sax ci dog bi la ëppee ndax lan ci dog bi lu ëpp ndax lan ndax xaddis yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne bokkul ci mbaax tukki mhm. woor mais benn ak ak bi mu ne bu la yàlla saraxee da jël ñaareelu xaddis bi uh-huh. benn saxaaba tukki na yonent bi ne ko woor mu ne ko wóoruma ndax tukki gi sonn ma si mhm. mu ne ko affaire du affaire sonn de lii cadeau la te yàlla dafa bëgg ba la ouvrir le mhm. nga nangu ko macha allah maam tey Babacar sax dafa bokk sax ci grandeur moo la mhm. ouvrir le nga jël ko nag wan ni man kii la te kon nag comme lii kado la mhm. moo tax boo dee jàng fiq dañ wax loo xamante ne am na loo xamante ne azima la wala lii ruxsa la am na loo xamante ne yàlla moo la ko ouvrir muy cadeau yaa ngi dégg léegi nag cadeau da war a jël xam nga tey fi mu ne nii yow Babacar boo gisoon président président Macky Sall soxla naa ko nag ngay dégg mu recevoir le président Macky Sall mm-hmm. soxla naa ko ngay dem daal di jël am montre mm-hmm. yóbbu ko nga ko président kan maa la jox cadeau montre bi lu muy doyee montre président dara si moom boo demee fee la koy teg ah, ah, ah, yaa ngi mais mu jël ko takk ko day wane ni lii woon man nga ma ko may nga neex na pourtant ko dara de kon tukki gi même boo sonnul defoo dara mm-hmm. nga ñàkk dog da ngay wane ni yàlla sa cadeau bi kat ouvrir nga ma mais da allah jërëjëf wa antasu mu xayru la ko mu tudd nag weer wi chahru ramadan mm-hmm. euh, maanaam foo fii indi na baatu chahr indi na baatu ramadan mm-hmm. euh, maanaam lan mooy maanaa chahr mm-hmm. ak lan mooy maanaa ramadan ak tamit ndax ci weer yi fukki weer ak ñaar yi ndax am na benn weer bu boo xam ne yàlla tudd na ko bu dul bu dul bu dul ramadan bu fekkee am na lu tax bu fekkee déedéet lu tax xam nga Babacar sànq wax naa la nee naa la mm. lépp lu jëm ci wàllu bakkan mm. tappale dafay bëri waaw <laughs> loo xamante ni bakkan moo ci gane waaw tappale dafay bëri <laughs> gis nga wàllu alal bakkan la waaw tappale dafay bëri moo tax dil yëpp alal la dëgg wàllu lekk ak naan <laughs> tappale dafay bëri moo tax boo xoolee lekk ak naan li muy jaral nit mhm. léegi nag yàlla mhm. bi muy farataal aj mhm. at bi muy farataal aj dafa ne ay weer la mais sitewul weer aj yi mm. ashhurun maalumaat waxul dul xijja wala dul qaada amul tam xarit weer bi hmm? benn weer rek la yàlla cité. Mhm. ci douze mois yi. ci mhm. alxuraan mhm. préciser ko mu leer. yaa ngi dégg de. muy ramadaan muy weeru koor ramadaan. kon ramadaan bii rek la tudd ci alxuraan. wala néewul rabiul awal rabiul asa jamidu saani mais ramadaan ah. parce que xamul tax lekk ak naan dafa neex ci bakkan. tey bu sitiwul weer bi carrément nit ñi mën nañ koo dire. mën nañoo bàyyi ba weeru jot ñu ne ah. naa nañ bàyyi ba weeru <laughs> de ah, moo tax foog mu préciser weer bi. allahu akbar Ah, parce que lii dafa jëm ci lekk ak naan te mhm. yàlla dafa xam nit. Mhm. moo tax mu tudd mu mu cité Ramadan. bu ko tudd doon weer na bëri de. mu tuddee ko chëhër. Mhm. lan mooy baatu chëhër ci arab. waaw baatu chëhër xam nga lépp lu tëggoo ci Chine bu tooy. ak hë ak raa. ci langue arab lépp lu tëggoo ci ñetti lettres yi. mooy lu fés. lu ñëpp xam. kenn du ko laam-laamee. Mm, mooy suhura. mooy suhura la ñuy wax suhura. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. lu siiw. tey fi ne nii tey boo taxawoon fii ah daan ne président Macky. ñëpp ko xam. dëgg dafa normal ñi war koo xam. Ah. boo taxawoon fii wax yeneen i tur. dafa normal ñi xam ko. kon baatu suhura. mooy loo xamante ni aada yi. ak xalaat yi. ñëpp xame nañ ko ko. xame nañ ko ni lii la mm-hmm. léegi nag ramadan mm-hmm. ramadan ci boppam mm-hmm. muy weeru koor ci ci ci ci ci société arabe ci seeni i aada yëpp ñoom ñëpp dëppoo woon ne weer wii la ñu xamal nañ ko seen bopp mooy baatu chëhr mooy chëhr mooy chëhr ngoog nga tey boo xoolee ci jaamu yàlla yi Babacar dafa am jaamu yàlla yoo xamante ni jant bi dafa am relation ak jant bi ma jant bi la koy xamal. Mm-hmm. am jaamu yàlla yoo xam te ni weer weer la koy xamal. Mm-hmm. tey lu mel ni ki julli. Mm-hmm. julli tey. waaw pour nga mën a xam ni julli yooyu foog nga xam ndax jant bi fenk na wala nàngama ak nangam jant bi toll daal. Ah. mais weeru koor nag pour nga mën koo xam foog nga xam foog nga xam weer yi. ñaata jour la fan lay dugge fan lay soye fan lay nangam. moo tax yàlla ne shahru ramadan. weeru koor. waaw léegi mu njëkk indi weer wi nag. indi ko ci façon boo xamante ni yéen ñëpp xam ngeen ko de. Mhm. mais terewul nag dinaa ko tudd nag. pour mu mhm. leer naan ñi pour ak tappale ban saa ah, la macha allah euh, kon mu noonu léegi mu ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran ci weeru koor wi nga xam ne ci lañ wàcc alquran mhm. te ku ne xam ne ne alquran daf doon wàcc ci circonstances yi nga xam ne yonent bi ak i saxaabam doon nañ ci doon nañ ci dund euh, te yonent bi la mu woote na 23 ans ndax 23 ans yooyu. ben ben wéru koor rek la yàlla wàcc alquran wala par par weer ci 23 ans par weeru koor rek la alquran daan wàcc loolu naka lañ ko mën a déggee la fi alquran maanaam ci biir shahr ramadan. xam nga yàlla nee na weeru koor. ci lañu wàcc alquran. waaw te ci logique mu wér que ne alquran wàcc na 23 ans. maanaam alquran amul benn weer ci kaw suuf. bu alquran wàccul alquran wàcc na janvier. wàcc na février. wàcc na mars. wàcc na avril wàcc na rabiul awal weer yëpp wàcc na fa. waaw léegi la ñu amul it benn temps. Hmm. bu nit di dund ci kaw suuf te alxuraan wàcc si wàcc na guddi. Hmm. Ida jaa ako munaafiqoona guddi la wàcc. Hmm. alxuraan yàcc na bëccëg. ku ne xam na loolu. alxuraan wàcc na jamonoy sedd sedd ba ñuy kof ko fi. mooy raqiban googu. ay commencement nisaay. alxuraan wàcc na tàng ba kenn du génn. ndox sax da koy xëppoo pour mën a am tuuti kii. mooy qul naaru jahannama ashaddu. alquran wàcc na ci nelaw yent bi di nelaw alquran wàcc alquran wàcc na ci biir suuf xunt tunnel ya ayuhal muzammil wa legi nak kon nak lañ mën déggé wéru ko ñom ci alquran wàcc ok legi babakar yow kañ nga judd ban weer jox ma benn weer rek waaw jëlal bu mu ne bu mu nekk ki de legi janvier ah jël janvier xam nga babakar janvier nga judd nga judd janvier ah puisque bi ngay feeñal say bëñ weeru janvier nga feeñale. déedéet. ah bi ngay am sikkin bi ngay sax sikkin weeru janvier nga saxee sikkin. déedéet. bi ngay njool weeru janvier nga njoole. déedéet. bi ngay jàng raam weeru janvier nga raame. Ah, ah, ah, bi ngay màgg weeru janvier nga raame. kon bu ñu nee Babacar. Babacar ci mi ngi ko ñu ngi ko wàcc ci weeru janvier. mooy commencement mën naa am ba ba ngay raam raame woo kon première aaye wàcc bi yàlla wàcc alquran mu juge ca lawxul mahfuz. di ñëw ci baytul azza weeru koor la premier ay bi ñëk wàccit muy iqra premier wàcc bi ci gharu hira weeru koor la mais après nak nekatul weeru koor est-ce est-ce manam moy moy moy mooy date de naissance am dal moy date de naissance wa légui nak est-ce nak force la sa date de naissance nak mom ci ni tay tey bu dee yow kar janvier nga judd légui pour nga feeñal bañ dañuy baye ba janvier jot nga doog a feeñal bañ ñi baye ba janvier jot nga doog a raam ñu bàyyi ba janvier jot nga jóg a taxaw dedet loolu moo dal baatu ramadan gi ñuy wax weeru koor ñaan ndax mi ngi jóge ci ramadan bi fii euh, lu tàkk wala lu ñu lakk wala nangam ki nàngam ndax ñi naan euh, li tax ñu tudde ko ramadan mooy day lakk ay bàkkaar mm-hmm. mais déedéet du lool de mm. waaye jullit du lakki bàkkaar jullit jullit jullit lu tax tuddewuñ ko safara ah, lu tax <laughs> salatu ala nabi du rakki bakkar eh, kan. astaghfirullah bi gaaw si bàkkaar nag ñu ko tuddé istighfar mhm. kon ramadan gi lutax ñu tuddé ko ramadan du ne mhm. limi lak ay bakkar motax ñu tuddé ko ramadan parce mhm. que amna ñu ko dakk lakki bakkar fuuf <laughs> fulaa ko dakk lakki bakkar jang alquran ko dakk lakki bakkar te alquran safara mais ramadan gi jamono biñi biñi defaratu ñuy defaraatu eh, weer yi ramadan ak jamaadul awa jama nangam bañ koy defar weer wu nekk la mu tombeeloon circonstance ba mu tombeeloon gën a marqué jamono moom lañ koy tudde dañuy wax rabiul awal mooy jamono bi mbay mi naatee neex ñu tudde ko weer bi jamono bi nga xam te ndox mi dañuy tekk muy jamaat ndox mi dañuy tekk te ndox dafa bokk si dund doomu aadama léegi nag lu mel ni ki toog un mois yoo xam lekkoo naanoo jamono bi ñu koy farataal jamono ñu dara gënduta rëy xew-xew boobu ñu tudde ko ramadan mooy te jamono boobu dafa tàngoon maanaam weeru tàngoon la léegi bi mu tàngee nag ñu tudde ko weer boobu léegi nag léegi nag xam nga tey xam nga tey mën nga maa laaj foofu ne ma lan moo tax jamono bi ñuy tudda ramadan dafa tàngoon moo tax ñu tudda ko ramadan dafa tàngoon période bi ñu fataa ko dafa tàngoon ñu tudda ko ramadan mm-hmm. mais yéen léegi léegi nag léegi nag dañu woor weeru sedd nañuy woor weeru sedd waaw waaw léegi ñu ngi koy woor. mais mais nag attention ci yenn gox yi rek de. déedéet mais yenn saa yi mën na nekk mën na nekk mais am na yenn gox yoo xam te ne dafay sedd. lu tax ñoom wu leen weeru sedd. Ah, waaw nga dëgg de. xam nga na tudd na la demee noonu. mooy jamono bi ngay tudde mbir mi. fekk circonstance bi mu wax ko tudde ko. Mhm. mën na changé tey boo amoon doom Babacar. Mhm. bi nga amee wala sax ku am doom. Mhm. ba doom juddoo rafet. rafet lool. nga xool ñu ne ah liir bee jong ma nga tudde ko Jamil. xam nga Jamil mooy lu rafet. waaw léegi mu màgg daal di am feebar lakk kanam nga tibb takk yaa ngi dégg mu demee dem ba yaa gémmiñ nga mooy mm-hmm. est-ce que rafetati na da nga naan damay changer tur bi kaay la ñu tuddaa ko changer tur bi da ngay continuer bi kon ramadan jamono bi ñuy tudd weeru ko ramadan dafa mm-hmm. tàngoon mm-hmm. leen bu dee toxu di toxu ba sedd du tax ñu bàyyi ko noonu ok wallaahi macha allah آه، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس فوفو من هدى للناس وخل هدى للمؤمنين ما دفنا للناس تي بو ديمي تي كوماس ما وصار بي دا ngay فك من الله هدى للمتقين واو لان لان مو لان مو لان مو ديفرنس لول واو خمغا تي بو خوله القران يالا ني ويرو كور وي دي ما فراتال تي يين bokk na ci ngëneel yi nga xamante ni moo tax ma farataal ko mhm. premier ngëneel bi yàlla njëkk tudd ci al ci weeru koor mhm. premier ngëneel bi mu si njëkk tudd mhm. mooy a fi alquran alquran la ñu wàcce ci moom mais looy jàngate ci loolu kon jàppal ni weer wii weer gënu ko ndax nit mënu am lu gën alquran te dëgg dëgg xoola xoola yàlla wax arrahman allama alquran xalaqal insaan allamahul bayaan yàlla daf la bëgg xamane nit lépp lu wara a ci mom moy alquran. képp ko fexe ba alquran njëkk ci yow. tedd nga. xam nga xam nga arrahman. rahman allama alquran. khalaqa alinsan allamahu albayan manam yàlla mo jàngale alquran. bind nit. jàngal ko ak xamé mais xol ay yoy nim mu dof ni mu doftalantee. ko nit ki day juddu kay ba pare. han ñi jàngal ko alphabet bi ba mu ragne par ni do ko jàng alquran deug la mais xoolee yàlla fi arrahman allama alquran dafa war war dafa war a arrahman xalaqa al insaan allamahu albayan wa allama alquran waaw mu jiital allama alquran lutax moy kon sa dom bi bu juddo bala nga yobu jardin d'enfant bala kenn di jitu ci mom ba pare fexel ba alquran jitu ci mom ba pare lu am solo fexeel ba sa doom avant muy judd na alxuraan jiitu si moom ba pare mhm. naka ngay fexee ba sa doom avant muy judd alxuraan jiitu si moom ba pare oh, mooy yow baay bi ko war a jur mhm. wala ndey ji ko war a jur mhm. nga fexe ba mën alxuraan di ko jàng boo mënee alquran di ko jàng bis bu nekk nga jàng alquran mm-hmm. ba sa deret jaxasoo alquran mm-hmm. doom doog see judd mooy arrahman allama alquran mm-hmm. xalaqal insaan doom bi judd na allamahul bayaan su boobaa nag day am ak intelligence ak yeewate gu fay nekk ah, professeur ñu waaxu waxtu waxtu waa ngi daw ah, macha allah mu ngoog <laughs> eh, xam naa faram fàcce gi lépp du ci du ci du ci du ci xaj mu ngoog wa bayinaat min al huda wal furqaan eh, fii mu indi fi baatu furqaan Euh, te fee mu ne euh, unzila fihi alquran lan moo teqale diggante quran ak furqaan waaw xam nga alquran moom mooy alquran bi ñu yor nii mhm. yàlla wàcc ko mhm. mais baatu furqaan mhm. mépp mooy lépp luy séparer dëgg ak neen maanaam furqaan attribution la moo tax tawret yàlla tuddi na ko furqaan linjiil yàlla tuddi na ko furqaan Euh, Seydina Omar mhm. nuñ ko tudd alfaaruq mhm. parce que moom fu mu dugg dafay dafay séparer dëgg ak neen mhm. yàlla nee na alquran bii nag bokk na ci particularité bi mu man antivirus la antivirus la moom alquran baatu furqaan mooy antivirus la tey boo jëlee alquran nga jàng ko pare virus yi yàlla yi iblis sànni ci sa yaram ci soxor ak kiñaan ak yooyu boo installé alquran ci sa yaram kooku antivirus la mooy furqaan macha allah euh, fa man fa man shahida minkum shahra fa waxul فمن حضر واي مو اندي فمن فمن شهد منكم الشهر فليصمه بروفيسور خمنا فوف لا نيو تاخو ني بو نيواتي نيو باسكو جيرو نتي كور بلا ان شاء الله واه لي القران نينا فمن شهد كو في تيوي منكم تيين الشهر ويرو كور فليصمه نكو وور مانام كو فكي كور نكو وور باتو شهد لا ديف واخول حضر كو تيوي واه waxul ida jaa ramadan su weeru koor ñëwee woor leen ko mais baatu shahada mm-hmm. shuhud mm-hmm. shuhud moom la olof di ma la ko doon firi si olof mm-hmm. mooy fekkee ak tal ah, yàlla nee na képp ku fekke weeru koor te ko wooral mooy baatu fa man shahida fekke ak tal la ndax nit mën naa fekke dara te du ko tal dëgg la nit mën na tal dara te du ko fekke léegi nag lu mel ni ki koor nag ñaar yi bu nekkul si yow jërul mënoo koo wor boo ko fekkiwul mënoo koo wor boo ko talul mënoo koo wor kon fa man shahida fekke ak mu ni minkum mu indi fa min xarfu jar boobu li tabaat mm-hmm. minkum waaw xam nga bi mu naan ko fekk weeru koo dafa ne fa man shahida minkum mm-hmm. kenn ci yoon minkum lu ko mm-hmm. waral lool mooy kon xoola yàlla yàlla xam na ne chaque année am na julli ñu dul fekke koor mooy min gi waaw fa man shahida waxul fa man shahida fa man shahida minkum moo tax mu ne minkum mm-hmm. kon chaque weeru koor mm-hmm. am na ñoo xam te ñu fekkee koor mm-hmm. am na ñoo xam dañ koy fekke te duñ ko tal na mooy baatu minkum kon chaque chaque weeru koor rek uh-huh. am na ñu ko dul tal uh-huh. chaque weeru koor am na ñu ko dul fekke uh-huh. mooy fa man shahida minkum shahra léegi nag weeru koor bu jotee nag fa man shahida ku ko fekke tal ko fal yasumhu obligation la nga woor ko fal ndax kooku la lamar la waaw ah, laam laamul amru la fal yasumhu waaw fal yasumhu xam nga tey boo xoolee فمن شهد منكم الشهر من بوبو خمغا اسمو شرط لا جازمون نعم. يجزم في علينا الاول في على شرط وسنه جاو جزاو فمن شهد منكم الشهر لغي فا بوبو واقعه في جواب من مانام كو فك ويرو كور شرط بي fal yesum na ko woor moom mooy mooy mooy mooy bi mooy mooy mooy mooy réponse condition bi mooy mhm. jawaabu charte bi mhm. léegi mu indi fa faa bi mhm. muy jawaab bi ba noppi faa boobu dafay wane ni kon faa bi day wane ni bala ngaa àgg ci laamul amri giy woor balaa nga àgg ci laam at bi woor foog suhur gi am foog nga fekkee ko tal ko ba pare macha allah te fekkee gi tal gi mooy eh, liñ commencé woon rek ci wér ci kàttan tabaarakallah nii xam nga tey xam nga la fi ne xam nga tal nañ ko dëgg la fekke fekke guñ ko fekkee guñ ko dëgg la macha allah da ngay da ngay boole fekkee ak tal jërëjëf professeur xam naa dañuy taxawandi foofu bi ndax euh, li alquran wax ci koor lépp bëgg nañ ko euh, jàngat ak jàngat ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, mbokki auditeurs yi incha allahu taala mhm. professeur jërëjëf ñu sant la gërëm la ci leeral yi waaye ñu bàyyee téléphone bi ñi nga xam ne bëgg nañoo dugg dugg ci émission bi am lu ñuy wala am contribution bu ñuy def ci 88 628 0078, 88 628 0078, inshallah 88 628 00 78 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kay euh, kooku. Euh, soxna euh, Serigne Thian Seck. Abdoul Aziz. Babacar. Serigne Babacar. la béykat. maa ngi laa ziare bu baax. yal na yàlla nangu ziar Seck. di ziare sunu Serigne boobu toog. maa ngi lay dégg di am di amati kontante. Mhm. Seck. bu baax a baax a baax a baax. alhamdulilah Seck. di leen di leen di leen ñaanal yàlla jërëjëf Seck seen taxawaay yàlla na yàgg mu ànd ak wér amiin yaa rabbal alamin ci barke yonante bi amiin salaam Seck ñu ngi leen di dégloo déglu mhm. te di leen dégg nag mhm, alhamdulilah te di bàyyi xel bu baax ci li ngeen di wax mhm. ñu ngi jàng tamit jàng boo xamante ni yéen yàlla ak yonante bi rek tax ngeen ñu koy defal alhamdulilah yàlla yàgg te sax jërëjëf Seck yàlla na yàlla gën a wéral seen cër. amiin amiin yaa rabbal alamin ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ko fi yàlla yàggal. amiin. ak mboolem koo xamante ni sant nga fi. Mhm. Mhm. maa ngi leen koy ñaanal ñoom. amiin di ñaanal sama waajur bu jigéen. amiin ya rabbal alamin. ak waajur yëpp. amiin. nattu bii nga xamante ne moom la yàlla indil. te ni ngeen ñu koy waxee ñu ñu koy dégg nañ di ko gamee noonu. Eh, yàlla na yàlla defal tamit mu teggil ñu ko mu gaaw. amiin yaa rabbal aalamiin yaa rabbal aalamiin ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. Oh, tabaarakallah Serigne Thian allah di fidèle auditeur ñu euh, ziar ko bu baax di rafet lu kaddu yi ak ñaan yi tamit yàlla ñu ko yàlla nangul bi jeex na bi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. 88 628 00 78 professeur ku ñi nekk bitim réew ci ban numéro la ñuy jaar. 00 ah, 221.

Ndiaye le professeur agrégé. jërëjëf man la Cheikh Ahmed Tidiane Sène Cheikh Ahmed Tidiane Sène Fadia waaw. macha allah li li Baye Thiam wax léegi ñu génn rek. wallaay dëgg la. li tubaab di wax naan il m'a mangé le gâteau li ma bëggoon wax yëpp faf na ko wax. alhamdulilah ku woote it li waroon a leer leer na. Mhm. maam Ousmane yàlla na la yàlla fay. amiin amiin waaye amiin ñu bokk ba yal na yàlla suturaal leen. li ma leen di faral di ñaanal toujours. Mhm. Mhm. yàlla bu ngeen ci gis seen bopp. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa yal na yàlla yokk seen sutura. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. Babacar damay faral di wax. waaw ñu may faral di waxtaanal ma leen jàngee Tiwaawan kese kese doyul de. Mhm. jàngee Tiwaawan kese. waaw doyul de. amuñu rek lu dul Tiwaawan. Tiwaawan rek la ñu bëgg. dëgg la na musique gëstu ji waat. Ah, dama ko yàgg wax ñi may mere de chaque jour ma wax loolu ñu mere ma. gëstu rek gëstu rek doyul de. wallaahi dëgg la wallaahi lañuy. Ah. xam nga li tax nit ñi li ngeen wax mu dugg ci xolu nit ñi. Mhm. macha allah jàng bi wér na. Mhm. ñaangi mi leer na. Mhm. gëstu ngeen xam ngeen li ngeen di wax wande da ngeen ko teg ci am kilifa. lii nag ku ko am rek macha allah kon yàlla na leen yàlla la. alhamdulilah jërëjëf. jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane Sène mm-hmm. macha allah euh, li mu wax lu am solo la boo jàngee ca daara ja par da ngay da ngay xóotal sa gëstu mm-hmm. macha allah ndax euh, jamono ak na muy tëddee jamono ju nekk macha allah dama dama faral di yàgg wax lu mel noonu xaar ñu jël ko ci ligne bi asalaamaaleykum allo asalaamaaleykum waaw kooku dem na man dama koy faral di wax mm-hmm. xam nga dafa am yoo xamante ni nit ki boo ko gëmloo yaa ngi dagg yitteem mhm. parce que boo ko gëmloo ne lépp fii la nekk soxlaa woon kenn dara mhm. sëñ bi yàlla rek moom moo yor lépp te soxlaawul kenn dara wallaahi dëgg la waaw ku dul yàlla rek soxla nga suñu sëriñ Seydi Hadji Malick mhm. la Seydi laxas na fi dem ba Mauritanie jàngi fa wallaahi wallaahi wallaahi ah. te na ko waaw ak jamono yooyu ni téere jafe nekk dem di jàngi mosul sax benn place ci jàng wallaahi waaw allo asalaamaaleykum waaw soxna Daba Soxna Ndeye Touré ah, eh, eh, El Mansour. macha allah waxtaan bi neex na macha allah ñu ngi jërëjëf jërëjëf Touré. ñoo ngi lay ziar bu ah. jërëjëf Touré. macha allah yàlla yàlla wéral alamin oh, Soxna Ndeye Touré moom. ku jàmbaar la ci jumaa El Mansour macha allah ci ah, jigéen ñi taxu jumaa ja tabaarakallah ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko ay namm nañ jumaa yi de wax dëgg yàlla bu ñu amal lu ko mën a football daal mu jóg fi dana sonal nañu daal <laughs> allo asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ah, Ablaye maa ngi lay ziyaar waay maa ngi nii maa ngi nii Ndiaye Ndiaye doom baay ñu ngi ziyaar baax Ndiaye jërëjëf Ndiaye. ja jaam kontaan. alhamdulilah. ndax daal wax dëgg yàlla réew mi xam-xam lool. Ndiaye. leeral gi leeral gi. waaw ndeysaan jërëjëf. li dugg si li dugg si nopp ñu dem ci xol yi. waaw moo jafe. dëgg dëgg la. waaye yéen daal fa tabaarakallaa daal ni ku ñam daal doo ko bàyyi. alhamdulilah alhamdulilah. Eh, ma pare di siyaar sama mbokk yi rek. Mm-hmm. di siyaar sama mbokk waalo waalo yi. Mm-hmm. ndeysaan. moo dun jaw jëkk ki si moom jaw yàlla dafa dogal yaram bi dafa xaw sudante yàlla ko yàlla saafara amin amin amin amin di siyaare yéen njaay nañ si jàmm gën ndeysaan mm-hmm. ak sama rakk bu mbooj yaay ndeysaan mm-hmm. est-ce que euh, tabaarakallah foofu ci Tiwaan Pël di nuyu waa di nuyu waa tund woowu macha allah euh, suñu mama Thianelo foofu ca ten tubaab ñu ngi koy nuyu Adja Aminata Dieng benn tël asalaamaaleykum salaamaaleykum sëriñ Babacar Niang la béykat man la Pam Ndoye maam Ousmane Ndiaye sëñ Pam maa eh, ngi ziar Ndoye waaw dee leen ziar bu baax macha allah Ndoye bisimilah alhamdulilah naka waagal tàppe ah jàngat nañ lu bees de ya, ya, jërëjëf jërëjëf maam daal yalla ya yàlla barkeel amin amin ya rabbal alamin ñëpp kontaan nag alhamdulilah saa bu ñu dégg daal suñu xol sedd alhamdulilah jërëjëf Ndoye waa Gueule Tapée waa Médina ñëpp ngi lay ci xol bu yaatu alhamdulilah alhamdulilah Ndoye yàlla yàlla amin amin ya rabbal alamin yàlla yàlla jàppal naka ñoom Ablaye waaw ñëpp a ngi sant yàlla bu ma leen ziare alhamdulilah waaye Ndoye. waaw ah, yow ba mbaa bokkoo ci ñi yàkkamtiwul koor gi Ndoye yéen yi ma gis fii de. ndooy man daal buñ buñ <laughs> yaa ngi dër de. <laughs> <laughs> ah kon baax na. waa allah jërëjëf Ndoye maam yàlla na yàlla jàppale. amiin amiin amiin macha allah euh, Pam Ndoye di ko am euh, di ko am pas-pas tabaarakallah euh, am pas-pas lool ci xadra bi ñu ziar ko macha allah nuyu waa Gëltap suñu rakk ju baax jooju Pape Amadou Diouf ñu ziar ko moom borom Daarul Habib macha allah ngoog asalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah Babacar la béyka kooku macha allah Abdou Aziz Cissé ah, Abdoul Aziz Cissé Gambi waaw maa ngi leen di ziara bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziara naka waa Gàmbi. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah tabaarakallah jërëjëf Cissé. Babacar ñu ngi bëgg loolu wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf Cissé. wallaay di leen ziar di ziar Seydou Ousmane moom it lu bari. jërëjëf Cissé. di ko ñaan waaye di ñaan yàlla yaatal xam-xam bi. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla guddal lool. amiin amiin. te yokk ko wér waaye defal ko lépp jullit amiin ñu bokk amiin ci barke Muhammad wallaay dégg nañu lool kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax ajuma jotee dañuy am kontaan bu baax macha Allah ñu xaar heure bi jot ma la déglu programme bi wax dëgg yàlla waaye kontaan nañ ci bu baax a baax macha allah waaye si Ousmane am naa baax na ci loolu wax dëgg yàlla ndax sopp naa la lu bëree bëree bëri bëri waaw incha allah wax dëgg yàlla na ko jërëjëf bul coupé technicien bi jox la ko wallaay wallaay maa ngi nag waa waa ñu maam Abdoul Aziz yëpp ah, bi ci Gambie ak Sénégal ba Mauritanie wax dëgg yàlla incha allah wallaay wallaay baax a baax a baax yàlla fekk yàlla nañu ko yàlla génneel ci àdduna bi yëpp amiin amiin barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay kontaan nañu lool yàlla xam ne suñu xol dafa fees jërëjëf Cissé waaye di siyaare lay déggee di bu baax alhamdulilah jërëjëf kontaan nañu lool bu baax a baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf léegi bul coupé bul coupé technicien bi jox la numéro bi ci suuf incha allah Mouhamadou Ndoye jox ko euh, numéro bi incha allahu taala Euh, di numéro professeur sëriñ Maam Ousmane Dia man Maam Ousmane man mii soxla naa sa numéro euh, asalaamaaleykum. dama la ko jox nag may tànkal ay laaj dong nga ma fi indi yoo xamante ni. ak ma ko soxla <laughs> asalaamaaleykum. dinañ ko ko jox de dinañ ko jox Babacar de. <laughs> 88 628 00 78 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk moomu kan la. yow Oustaz Abdoulaye Lo. Abdoulaye Lo borom wal asri. ah sëñ Babacar. naka waa Gueule Tapée. ñëpp ñu ngi baax. alhamdulilah jërëjëf baax loo. alhamdulilah sant yàlla la. sëñ Ousmane. waaw. naka coono yi. ñu ngi sant baax sëñ Abdoulaye. déggati nañu de. wallaay loo. de leer na lool lool lool. jërëjëf loo. waaw ah, tafsir bi daal. waaw ah. amuñu ci dara dara lu la lu nu bëggoon a laaj daal day. ñëw ci biir leçon leer lool. alhamdulilah alhamdulilah. waaw ala lazina yutiquuna googu moom bëggoon nañu ko leerlu mais leeral nga ko bu baax. jërëjëf. Ah. yal na yàlla dolli xam-xam. amiin amiin amiin amiin rabbil alamin di bu baax. jërëjëf yal na yàlla nangu ziarloo. macha allah jërëjëf di ziare waa Gueule Tapée yëpp nag eh, tabaarakallah ñoom Serigne Mor si Euh, sëriñ Moussa ma allah ak sëriñ Pape Dieye macha ñoom ñëpp ñu ziar la waaye sëriñ Ousmane Dieng ca Medina ak euh, imam imaamu ratib ba di magam di Thierno Bachir euh, Dieng ak sëriñ Assane asalaamaaleykum waaleykum waaw waaw léegi bul coupé bul coupé Mamadou Ndoye jox ko jox ko numéro bi amal nga ko jox de jox ko ah jox ko directement pour man wala pour yéen bu dee pour man de garaaw waaw ah, allo Ah, waaw mi ngi ko dana mi ngi ko koy jox ah. waaw macha allah. <laughs> sama ah, mu ngi noonu. ah am na solo kay xam nga gars yi moom nag mu ngi noonu <laughs> la yàlla xam doy na. tabaarakallah kon mu ngi noonu 88 628 00 70 ci la ñuy ànd ak yéen incha allahu taala di ñaan yàlla koor gi nga xam ne ñu ngi ci jëm yàlla nañ ci yàlla may ñu egg ci ak jàmm. ñu mën ko woor te yàlla dàqal ñu corona bii nag macha allah. waaw corona bi daal yàlla ñu ko yàlla dàqal bi jeex na bil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ngi noonu kon incha allah ñu xaar rek ku ñëw ci ligne 88 628 00 78 asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar. la béykat. ñu ngi leen di ziar de. yàlla na ngi ziar waay kooku. Euh, Moussa Diaw Malika. Moussa Diaw Malika ñu ngi lay ziar ba sëriñ Moussa. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. yàlla na ngi ziar bi Moussa Diaw. ñoo ngi rafetlu seen waxtaan de. jërëjëf jërëjëf Diaw. ci suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen waaye macha allah. alhamdulilah jërëjëf. yàlla ñu yàlla defal dégg topp amin amin yaa rabbal alamin ñuy siyaare yaa oustaz boobu leçon mi mu joxe tey am na solo trop mm-hmm. jërëjëf jërëjëf si saxaru ramadan alazi boobu noonu mm-hmm. kon alhamdulilah yàlla nañu yàlla may ñu woor ko si jàmm amin amin yaa rabbal yàlla nangul ñu suñu koor amin mm-hmm. li nga xam ni moo téye réew mi ak activité yeeg yëpp yàlla dàqal ñu ko amin amin yaa rabbal ba kenn ku ne delloo ci amin yaa rabbal alamin di leen siyaar di leen ñaanal yàlla yal na yàlla dolli jàmm. amiin amiin amiin yaa rabbal aalamiin. kontaan nañu bu baax a baax a baax. amiin amiin jërëjëf. jërëjëf sëñ Moussa Diaw foofa ca Malika euh, Ndiaga Mbaye Ndiaga Mbaye nee na moom émission bi du ko raté. Ndiaga Mbaye benn bu Tivaouane. ah Ndiaga Mbaye moom waaw sama Ndiaga Mbaye. wallaay ndeysaan sama xarit la ndeysaan mi ngi lay mi ngi lay nuyu di la ziar macha allah. ñoom El Hadj Moustapha Mbaye ak borom borom takkusaan na bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay mbokk moom kan la. ah, ah Seydina Alioune Mboup. macha allah ñu ngi lay ziar bu baax. ñoo leen siyaar. alhamdulilah Mboub. ñu ngi sant bu baax. Mboub Mboub Mboub. waaw jërëjëf sant Ndiaye. jërëjëf jërëjëf Aline. jërëjëf sant bu baax euh, euh, ci waxtaan bi ngeen di waxtaan yëpp dégg nañ ko. Mm-hmm. jërëjëf. ak ñaan yi ngeen di ñaan yal na yàlla nangu. amiin amiin amiin. ginnaaw loolu man damay fàttali yàlla yi. Mm-hmm. julli gi sax la walaay fàttali. Mm-hmm. nañ jox moom. nañ. jox yàlla li mu moom. dëgg la. waaw ndaxte dëgg na ci kanam ci ñu naan jiw moom moom fii. yaakaar dëgg la dëgg la <laughs> dëgg la dëgg la. tey Sénégal dëgg la wallaay macha allah jërëjëf sëñ Naaline bu wax na dëgg de yàlla moom lépp <laughs> macha allah. xam nga moom senegal moom yenn saa ay daa sama classe gi moom ay daanukat lañ. dëkk bu neex la wallaahi ndeysaan. <laughs> macha allah sëñ Naaline Mboup jërëjëf 88 628 00 78 la ñuy ànd ak yéen El Hadj Moustapha Mbaye borom takkusaan maa ngi lay nuyul ma bu baax. Euh, madam Baye di soxna Khady asalaamaaleykum Khadija maa ngi koy ziar bu baax tabaarakallah di euh, nuy bu baax ndey waaw suñ soxna moom mu ko tabaarakallah ko baax Ndeye Khady Diop tabaarakallah foofu ca di madame Xuma ñu ngi koy ziar bu baax Moussa Fall foofu ci amitié euh, tabaarakallah di nuyu waa amitié yëpp macha allah Pape Mbeng Pape Mbeng moom it bëgg laax nekk foofu ci amitié ñu ngi koy nuyu bu baax tabaarakallah 88 628 00 78 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk moomu kan la. sëriñ Babacar ñoo ngi leen di ziar. yal na yàlla nangu ziar ko kan la. Ndiankou Ndoye Pout. Ndiankou Ndoye naka waa Pout. ñu ngi si jàmm bu baax a baax. jërëjëf Ndoye. ñoo ngi leen di bégee bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. di bégee professeur maam Ousmane Ndiaye. jërëjëf Ndoye. di rafetlu waxtaan bi baarakallaahu. Ndoye Ndoye. am na solo lool bég nañu bégati nañ sax la ñuy wax. Mm. yal na yàlla defal leen jàmm. yal na yàlla suturaal leen yokk xam. amiin amiin sàmm leen aar leen. amiin yaa rabbal aalamiin ci daraja nañu lool ñu ngi bégg Asfiyahi saa su ne. wallaay jëf jërëjëf. waaw bégg Asfiyahi saa su di ñaan télé bi yal na si yàlla teg loxoom. amiin yal na yàlla teg loxoom ci Asfiyahi. amiin waaw ñu ngi koy bégg daal baax di ko ñaanal yàlla daal fu ñu kontaan nañu lool lool macha allah. waaw yàlla dogal na professeur maam Ousmane moom dañ koo dañ koo sopp rek. waaw te xamante wuñu yàlla xam na ko. jërëjëf Ndoye waaw ñu ngi ko daan fekk ci koor gi fële kër àll saam. waaw ndeysaan ndeysaan. di bëggee daal bu baax a baax. jërëjëf waaw yàlla amu leen yàlla yàlla aar leen. amiin amiin bokk amiin. ndeysaan jërëjëf jërëjëf euh, njànkondooy foofa ca Pout di nuyu waa Pout yëpp nag na suñu waa kër maam Lamine Ñang ya fa nekk mhm, tabarakallah boobu ko sompaare ca France nee na nee na day koor gi da ci dégg am ndooyee nag wala kam bengeen bu ne man dama positif ci corona bi ndax bañ a woor <laughs> yàlla de kon mu doy waar nag macha allah kon mu ngi noonu Mamadou Ndoye ca Italie ñu ngi koy nuyu El Malick Sarr foofa ca Italie mu ñoom ñëpp allo asalaamaaleykum asalaamaaleykum ah kooku dem na macha allah di nuyu mbokk yooyu. kay jërëjëf très macha allah. Oh, oh, dem na macha allah est-ce mhm. ndey tere ku baax la ndey sant bëgg lu baax macha allah ñu ngi ñu nuyu waa waa Grand Dakar yooyu yëpp nag na waa Jumaa ja di ci jiital imaam imaam euh, imaam Lamine Ndiaye tabaarakallah ñoom imaam Mbaye Diouf. ñoom imaam euh, euh, Mansour leen asalaamaaleykum. waaleykum waa kay mbokk moomu kan la. Ah, maa ngi de kii de mooy Ndiaye. waaw kon da ngaa juum de Ousmane amul talib, de. non am na taalibe sax mais sama ginnaaw ngay toog. <laughs> kon <laughs> sama ginnaaw ngay toog. kon da ngaa juum de wa da ngaa jaawale numéro bi de Ousmane Ndiaye mi amul talib. de. <laughs> waaw. fan yëpp benn ayat moo ma xaw a sonal. ah. mu yow yafiru maru min aqi wa abi wa sahibati wa bani ba nii. waaw. waaye nag li kulli imrin min ne yow may di sonn yónni. par rapport ak euh, actualité bi nekk. waaw le fait que dëkk yëpp tëju. ku nekk am benn nag benn benn mbir bu ñu salaat. wala day sëkk waaw. waaw kay nag moom moom laa bëggoon nag bu dee mën na nga am indi leer jéegul nag bu baax. <laughs> ok. macha allah yow kay li nga wax dafa leer naññ kay. <laughs> ma macha allah. Eh, xam xam naa nga tënkal ko rek dinañ dinañ ci ñëw jàngal ko. beneen waaw moom li bëgg wax loolu loolu am moom moom toll si jamono bi kenn ku nekk. sa bopp la tal sa bopp nga tal. pour dëggal li mu wax rek xam nga temps yii Italie. Italie ñi ngi dem bay xaw a euh, ŋàññi tuuti sax ci union union Europe bi. Ah. ndax nee na union Europe bi talu talatu leen daal <laughs> <laughs> te fekk parce que waaw te fekk ne bopp fépp lay métti ndax Union ñoom tam li ñu war a dimbale Italie ñu ngi toog di xaar pour la dal Italie dal leen ñu ko <laughs> waaw mooy fi ne nii kenn ku ne sa bopp la wallaay wallaay ndeysaan est-ce que yàlla de yéeme xam xam naa incha allah euh, deuxième taalibe maam Ousmane boobu ndax man maay première incha allah dinañ ñëw ci aaya boobu asalaamaaleykum aleykum salaam mbokk moomu kan la euh, Isaaxa Boy laa tudd Isaaxa Boy ñu woowee maa ngi leen bisimilah booy maa ngi def ci wàllu dëkk bu ñu wax Mengeñ booy. waaw macha allah maa ngi nuyu yu baax te sant. jërëjëf booy. li mu doon laajtee. Mhm. waat. Mhm. ci caamil wala waat jël jël sa loxo dugal ci safara wala waat ci alko ci nga jël paaka mark lan mooy lan la ci lislaam wax. Mhm. waaw incha allah professeur mi ngi léegi déglu ci rajo bi mu tontu la. jërëjëf Isxaaqa Boy de nga professeur lim laaj moy amna façon nga wat ñi dañuy dañ bala ñuy wat dañ leen indi kaamil ñu teg ci seen loxo am ñuy wat ci safara am ño xam dañuy tej jëka ba ñawal ko ba ñew ñu wat mar ko façon nga wat yo mooy la ci l'islam wax <laughs> xam nga nak bo ñew ci mm-hmm. euh bo ñew ci l'islam mom amna euh yenn circonstances yo xamante mm-hmm. da lay waatloo mm-hmm. léegi comme lu melni ki kuy sëy nit bi ngay sey nit dom juddu sa mhm. nga ni man jurumako mhm. ngeen wara dem fofu da ngeen di wat mhm. wala nit ki ne sama jëkkër moma ma ni ñu indi benn seede ak wat xamna amna am na côté am dañ koy wat mais bu dee comme yi ni def ni nag tek safara dal ni maangi wat safara du ci wala jël paaka ne maangi wat pour lakk yoy ah lolu mom <laughs> du du du du du charia waaw wat mom amna, nga taxaw Wat waat ci yalla wat ci yalla ci ne li def naa ko la lii def mu ko mais nag day fekk circonstance bi jar ko ci yi nu wax mais du waatantu yu ndaw ndawaan nii nii nii rek man kaana xaalifan fal yaxlif billaahi aw liyasmut waaw kay am na yenn circonstance yoo xam te ni moom juge bi maanaam imam bi dafa lay fay waatloo nit ki maanaam yii nii lu xewoon la avant l'islam ca jamonoy cedd ya nga xam ne boo waxul dëgg boo duggee ci safara safara daf lay lakk affaire yooyu waaw mais nag xam nga problème bi mooy tey bëri na koo xamante ni mën na xëy suba di teg ay dir naan sama tëraayu bàmmeel. salaamaaleykum ak yàlla naa ñàkk sama bakkan te fekk du ñàkk bakkanam. déedéet asalaamaaleykum. waaleykum salaam oustaz maa ñëwaat kii kii daa dagoon ligne bi daa dagoon. waaw waaw waaw. waaw damay dénkaat mbokk yi rek nañu nañu góorgóorlu rek euh, ca dëgg wax. dëgg la dëgg la mboobu. yàlla nag li mu wax li mu wax war ragal mooy jëfe li mu. Mhm. bàyyi li mu tere. Mhm, dëgg la. bu ñu yor weccet ba béw. Mhm. ndax euh, loo bi yor yàlla wax jox. dëgg la euh, bu ko neexee dina ko nangu. wallaahi wallaahi dëgg la. kon nag sama bopp li may wax sama bopp laa koy jaarale. loo fonk sa xam ni jàmm yàlla la. wallaay dëgg la. waaw joxal yàlla cëram. Mhm. kenn ku ne jox ko cëram. Mhm. ñëpp ay jàmm yàlla lañu. Mhm. dëgg la waaye am rek ci jàmm yàlla nga xam. wallaahi. ndeysaan seen alin boobu macha allah waxu tawxiid dëgg lay wax moom ba lépp daal yàlla maanaa euh, loo am yàlla la ko may loo ñàkk tamit yar xañ moo tax mu xañ la ko kon boog euh, bu ñuy bàkk nañ bàkk yàlla. waaw mën nañ nit nag mën na def njàmbaarte goo xam ne jaajëf yey na ca waaw góor yey na ca. pour mu gën a jaa yokk njàmbaaram waaye daal euh, ni àdduna doxee daal yàllaa koy doxalee noonu àdduna am asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa sant yàlla bu baax kooku. man la Alioune Seye Popenguine Séeréer. ah Alioune Seye ñu ngi lay ziar baax nag ma woo Alaaji ndeysaan ñu ngi sant yàlla bu baax Seye. bi mu ne sama xol dafa sedd bi mënuma sax wax. ndeysaan sëy. li mu dugal ngeen dugal ci sama xol. maak mhm. yàlla rek. ndeysaan. est-ce que daf leen yàlla fay. amiin amiin yaa rabbal alamin. may leen fan gudd ànd ak mujj. amiin sëy jërëjëf xam-xam bi yokku. amiin bàyyi leen ci suñu kontaan naa trop. trop trop trop jërëjëf jërëjëf kontaan. amiin yaa rabbal alamin amiin. léegi maa ngi siyaare. Mhm. Babacar bu Sëñ Abdou. Mhm. sëriñ Babacar Samb commencé ci moom moom taaw li ci caat. Hmm. maa ngi leen di siyaar ñoom ñëpp. Hmm, jërëjëf ah Ba ah, sëriñ Babacar Mbaye Pape Aïda maa ngi siyaar. Hmm. macha allah jërëjëf Seydina Alioune Seye Popenguine di nuyu waa Popenguine yëpp nag tabaarakallah ah, di nuyu mboolem njabootu maam Cheikh Al Hadj Malick waye Cheikh Ahmad Tidiane Tall di setu Cheikh Al Fouti mom tamit émission bi nee du ko raté ah, ngi koy nuyu bu baax euh, di ziyara ma sha allah mm-hmm. di nuyu mbollem kilifa yek ay imay assalamu alaykum koku demna mu melni dafa melni sax liñ amone ci waxtu mo far euh, jeex wala dess nañ 2 minutes kon ñu xol bi dernier auditeur insha allah wala auditrice ñu duggal ko asalaamaaleykum euh, sëñ bi ziar nañ la yàlla na nangu ziar koku Mamadou Mamadou Mamadou Ndiaga Ñaaw naka waa Ndiaga Ñaaw eh, seen kii bi rafet na tor neex seen émission bi neex na jërëjëf mhm. Mamadou seen émission bi neex torop ñu ngi toog di ko déglu jërëjëf jërëjëf Mamadou yaa ngi ci mbaa yéen a ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm bu baax tabarakallah alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf xaaral ma jàll sama kii bi waaw ah. aha mhm, waa Ndiaga Ñaaw ñoom tamit ñu nuyu leen ziyaara leen tabarakallah allo allo tabaarakallah Mamadou mu doon wootee foofu ca Njagañaaw ñu mu nekkal ñëpp foofu ca Njagañaaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu tabaarakallahu gox goxaan yooyu yëpp waaye di nuy doomu daara yi di nuyu imaam yi di nuyu borom xam-xam yi ñëpp incha allahu taala professeur mu mel ni li amoon ci wàllu waxtu jeex na. Ah. looy tëjee. ah xanaa di sant yàlla rek. Mhm. di ñaan yàlla yàlla nañu dolli sutura. amiin di bëggee ñëpp rek di la ñaanal yàlla yow tam gudd fan. solo la ci wàllu waat. waaw ci wàllu waat waat. waaw waaw parce que waat moom lu xaw a. xam naa ajuma a waaw waaw parce que dafa xaw a sensible lu jar a def taxaw jàngat la bu baax. incha allah baax na ñu ngi ziar ñëpp. Mhm. di baalu àq ñëpp di baal mhm. ñëpp àq. macha allah jërëjëf. sanse bi ah, la rek damaa ah. biddante xam nga ma xam ah. ne ma fa neree nekk di sol yére. tabaarakallah te ma tardé. yow kon nii ngay biddante. waaw góore waay jërëjëf professeur Serigne Mame Ousmane Ndiaye ci leeral yi macha allah di di jox ni nga ko waxee rek di daje auditeurs yi ajjuma bii di ñëw allahu taala ci eh, beneen aaya incha allahu taala xam naa ci koor gi la ñuy fekk bo jombul di ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ko ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mu nekkoon seen émission maidatul quran ki ci ki leen ko doon présenté di seen mbokk Babacar Niang àndoon ci ak professeur Serigne Ousmane Ndiaye ki nekkul ci technique bi di ma Ndoye waaye ki nga xam ne moo féetoon ci wàllu caméra bi di Serigne Moussa Diop ñun nuyu leen ziar leen ñaanal leen ñaanal leen yàlla sutura ak tawfiix tabarakallahu ñaanal leen ko yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon déglu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu